mbaa weeru kori mbaa weeru gàmmu séet yi day bari lool céet yi bari lool ne xus waaye balaa weer waa del si déwén naa nga mën nga 60 pour cent tas mbaa du yàgg loolu nag li koy waral ay mbir la yu bari mu ne sute lim yëpp waaye dañ ci lim yenn bi ci njëkk mooy jamono dafa soppi ko lool la amoon bu njëkk ak li am léegi du benn bu njëkk suñu masaan dem ba toll ci mat a denc soxna baayam da ko yebal na ko demal sa kër ndijaay sàngam wala sa kër bàjjan sàngam nga xool ay doomam koo ca bëgg nga ñëw wax ma ko ndoom ja def la ko baayam wax dem xool kam bëgg ñëw wax ko ko baayam dox ko ñu may ko ko soo ko dee dana ci dana dana ci sàmm ñaar dana ci rus ñaar benn dana respecté baayam ngir yaakaar ji mu am ba tànnal ko ko ba tax dana ko téye ngir loola ñaar dana bàyyi xel it bokk yi leen yàlla boole mu sàmm ngor ba luy yàqu bokk bañ a bàyyi ko ci moom wala sax baayam jekk-jekk dem ci ay bokkam ci lum ko dul tàggu moom wutal ko fa soxna bañ fas ko mu dool ko ko yëgal te du ca dindi dara ngir respecté gi muy respecté baayam loolu mooy li amoon bu njëkk waaye li tax loolu mënoon a am nag mooy dañ daa yar seenu njaboot ci ngor yar leen ci diine yar leen ci mbañam rus ak i teggin ak am kilifa te nangu mu yilif la ba loola won ni ko nag la mbir yu soppi ko ba ñu ëpp amatuñ kilifa léegi xale yi ñooy bëggal seen bopp ñooy tànnal seen bopp ko ci jàpp ne yaa yilif sa doom ba tax nga dencal ko soxna takkal ko ko su ko bëggul da koy wàcc te du la ca seet du ca seet keneen ba leneen loolu mooy li am euh, ñu bari nag rawatina ci biir murit gi ba tey dañuy bëgg a doxal loola te xamuñu ne jamono laajatu ko ba tax na bari na sëy yu tas yoo xam ne loola koy waral muy benn ba ko ñaareel ci li sabu tas tas gu bari gi may ñàkk jiital li waral lal ab sëy ab sëy li ko war a lal mooy ngor ak diine léegi seetetuñu ngor seet seetetuñu diine li ñu seet mooy alal akub taar kii sëy na ngir alal waa bu dee lépp ci jigéen ñëw itam li ñu topp li ñu li ñu li ñu li ñu toppee góor may alal ak situation te ku sëy ngir alal nag saa alal ji jeexee sëy batas tas ku sëy ngir situation it saabu bu loola soppi ko sëy ba bi góor ñi xamee lool nag xam ne léegi lépp ci jigéen ñi alal dong la ñuy xool léegi suñ la bëggee dañuy dañu dañu dañu dañu bëggee seen tappal la ñu lal jël ay fen rab bu ko ba mu rafet di la wax loo xam ne dara du ca doon dëgg li ëpp ci góor ñi ngoro duñu wax dëgg li ci ëpp du ñëpp de waaye li ci li bari gëm loolu ne maa am nangam maa am lii ma mel nii léeg mu tudd la ko siiw ne la sama xarit te boo demee sax masu ko gis xamu ko damay dem Allemagne damay dem Amérique te boo demee gor sax mosu fa dem walla transfert la wala directeur banque la te boo demee lépp ay ay feneen suy ñëw it day luy oto bu rafet gëm lool ne moo ko moom <coughs> te boo demee ab sàmburaay sax amu ko sol yére yu rafet takk montre bu seer ngàbb iPhone bu seer maanaam sax da ko àbb tuural laaj ko la ñu laaj yàq sa bopp ba dof loola ba nga ba nga ba nga dugg ci moom soo duggee ba nag door a xam ne la mu doon wax dara du ci dëgg su ko defee nga daal di découragé ngeen mucc ci tas mucc ci mujj ci tas rek ak lu baat ba gudd gudd it noonu dong la deme am góor gu mas ngoro jigéen mu ne ko looy liggéey mu ne ko chauffeur la fa demee ay ñett yoon ñeent mu ne ko ay yow da maa waxoon ne chauffeur waaye ah, mu sëgg wokk noo ngi ne ko chauffeur saretu mbaam <laughs> moon naa wax dëgg rek <coughs> dëgg la nag chauffeur la waaye moon naa wax chauffeur lu mu doon ba ko ñetteel ci lii tax waral tas ku bari tas gi bari mooy mbëggeel gu sincère amatul wala bëreetul ñu ci bari dañuy xemeem rek rawatina góor ñi ñenn ñi ab taar rek lañuy xool ne si jigéen ju xeesal ba weex jekk lool rafet lool ma daa daanu jël daal di koy xemeem lool dugg ci moom te seetul ji ko ja léeg na mu dugg ba ca biir fekk muy jigéen ju bon jigéen ju wex xat mujj mel ci moom ni xalu sawara ci ci ci ab loxoom su ko defee la ci mujj mooy tas rek am na ci borom barke yi ñoo xam ne moom dañuy fayee ab sëy takk di wàcc rek mooy seen mbëcc takk di wàcc rek jigéen ñu gis mu rafet ñu takk suñu xasee xam lam war doo pare nañ ci moom dañu am xaalis na tax ma xaalis moom bunt mu fëgg mu ubbi ko te nit ñi xaalis da leen jiital rawatina jigéen ñi moo nag kuñ ngoro mu nangu suñ ko takkee diir bu gàtt ñu doyal ci moom wàcc ko seeti moroomam am na it ci jigéen ñoo xam ne te lool fu mel ni ndakaaru la ëppee nga xam dañuy am xaalis am kër am oto am lu ne namuñ dara waaye li ñuy wër daal may ndaw la entraîné ba ceene ñu tóor ko xaalis xam nga ndaw lu liggéeyut amul dara maanaam bu xëy su da am lu muy ndekkee ba kooku ba ñëwee tuur ko xaalis loo bëgg ci moom da yomb ci xaalis nag lañ koy lañ koy jaare ba jot ci moom te dooleem dong lañ soxla suñ ko ŋaccee ba dooleem jeex ñu sànni ko ci àll ba wuti seeti moroomam loolu am na fee ci ndakaaru lu mel noonu bari na fa lool am na ci nag benn benn yu baax yoo ne am nañu loolu lépp waaye li ñu bëgg rek mooy waaju baax joo xam ne daa leen mën dimbali ci seen diine man leen a yiir suturaal leen ñu jaamu yàlla ci moom ñu bari ci sama classe gi nga xam ne dañoo bëgg lu yomb ñooñu la ñuy wër waaye xam nga lool it mbëggeel gu sincère la lu ko xaalis ba ak yomb ga moo la ciy dugal ah koo xam ne moom dara wërul ci moom da tëdd rek mu dee la saafal ay ginaar dina toppatoo attan la ne ah ko fa gis na ma ko wax kon dangay xam ne booba booba ànd kon intere ko lal kon alal ja lala ca bàyyi waxtu wu jeexee mu dem ba daanu amatul dara danga koy wàcc ndax yàlla taxutoon su dee amoo ngor waaye su dee borom ngor nag ku am ngor nag ngor ga mën daa tax mu téye ko ngir lam ko ji ba ko ñenteel ci li waral tas gu bari gi mooy fiir gu ëpp fiir bari na lool sëy yu tas yoo xam ne fiir gu ëpp rek a tax lool na ci jigéen ji la ëppee walla fi dañuy wax ne nag fiir ñaant la dafa am fiirug bëy fiirug xar fiirug ginaar fiirug xaj fiirug béy moom aw làmmiñam la yor rekk weer weer weer juddul selaw soow guddi soow bëccëg ba ne benn mu ne la fukk wax ba wër la fiirug xar moom danaa yugg ak moom rekk xol bi di dagg da nga mu koy miseer nga gis muy jeex saa bu xëyee di gën a wow nga ne waa kii lu ko jot xanaa dafa dafa dafa feer xanaa dafa feebar fekk fiir gu mett képp a ko jàpp moom doo xamoon moom danaa ak moom rek waaye ma mag ma ci biir di yàq fiiru ginaar moom aw dàllam lay sol kër gu ne mu dugg fa di jàmbat rek lu la xamoon mu siiw sama jëkkër lii sama jëkkër laa fu mu fu mu toll day wax rek fu mu fu ne mu dugg fa bu dee fiiru xaj nag moom day ël ëli rek jigéen du fa dugg doo wuy appel jigéen doo woo jigéen jigéen du la seetsi lu ci am rek soppi ko waay dañuy wéri dañuy vérifier sa téléphone di xool say message ba xam yaa ngi wax ak jigéenam ndéet suñ gisee yenn message yi attaqué la xuloo mën na ca jàppante yow ba ba tàgg ba tàggoo mujj ca am ci ñoo xam ne da leen di jaral soo génnee ñu di la topp di la sirwaye ba xam looy dox ndax dangay ngay doxaanam déet ñenn ñi sooy wax téléphone ñu di la yëddu di la déglu yooyu yëpp ci xeeti fiir la bokk am na ñoo xam ne soo takkee ñaareel soo leen ko annoncé sootu doo ko nettali jigéen ñaa ngi soode seeni seeni seeni jëkkër ngir fiir di leen sotti diw gu sens ngir fiir di rek ci façon bu ne ngir fiir rek am na kenn koo xam ne ba léegi mu ngi ci kaso bi seen son soxna borom kër dafa ñëw ko am naa ñaareel te fekk ñaareel ba sax du soxna maa dafa jënd ab oto bu bees waxee ko ko noonu mu ne ko mu ñëw daal dem di tàngal diw ba mu saa si ñëw sotti ko borom kër ba faatu kooka ba fi nii mi ngi ci kaso bi moo tax nag góor ñi ragal seeni soxna di takk-takki suuf mbaa bu dul takk suuf it moom du ñemee dem di ko di ko di ko waxa si boppam ab xaritam la yabal waxal ko ko mbaa mu yabal ustaas bi ci koñ bi mu dem njëkk ko waar ba noppi dor ko ko wax te lu mu ko waar waar kat ma bu ñibbi du yóbbaale ay te fiir fiir tax te fiir ga mën naa mën naa mën naa dem ba yóbbu sax mu far baat ba ko juróomeel ci yoral tas gi bari mooy kujje gu metti am na ñoo xam ne mënuñoo supporter wujj dara suñ mbokkee dëkk xuloo guddi xuloo bëccëg yàqante rek ku ci ne di yéene sa moroom aw ay di ko yéene lu bon di ko yéene musiba lu ko dal nga ne ñaw maa ko ko yéene duñ yem ci yéene ko ko waaye dañuy dox ci lu koy dëggal mooy di def ay fitis di dem ci jabar yi te liggéeyu sa liggéeyu sa wujju ngir mu dee mbaa mu def mbaa mu génn kër ga bu ko defee nag su dee ko régalul yàlla mbaa mu bëgg xaalis soo ko fayee mu defal la nga bëgg ci te juróom yëf yiñ limoon wax ne mooy xikam yi tax ñu yoonal sëy suñ bëggantee bëggante gu wér ba noppi jiital pas-pas yooyu benn jafe-jafe du ma sam seen diggante incha allah ba ko ñetteel ci li mën a tax ab sëy sax mooy communication di am seen diggante sëy communication la dañoo wax di waxtaan ñaari way denc dañoo war di waxtaan di diisoo ci lépp wolof day wax ne réeroo amul ñàkk a waxtaan a am nga dégg ci kon li nga dégg ci ne kon li fekk waxtaan yi nga am rek kon réeroo du am communication boobu yi nag moo amatul léegi ci sëy borom këru soxnaan soxna dañuy toog kenn ku nekk sëgg ci téléphone kenn du tal kenn ña nga ca whatsapp ya ña ca tiktok ya ña nga ca youtube ba ña nga ca facebook ba ba kenn teletu la waxtaan ak moroomam mbaa muy diisoo moom ci lenn loolu it dafay dafay yàq ba ko juróomeel mooy nag ñu roy ci soxna Mariama Jaaratullaahi Buso kon nag day laaj kon ñu xam kon moom mooy kan génn xasida rek laa ci indi ko wax na maam Samba Mariama moo ko def maam Samba Mariama Jóob loolu si Musaa Ka di junj ca wayo naan maam Samba Mariama lam wax kenn dootu ko wax xamdan li man jaala doon way wa lillaahi dafa def xasida gu rafet ci soxna jaara waaye lii ñu wax muy ànd bu rafet ak sa bakki say say say say say say mbokki dara da caa feeñ am na ca bayit wu ci gën a fees wax ne moom muñ ko jàngatee lool lool rek doy na ci sëkk waaye mi ngi tàmbali ci xasida gi ci xam nan li man jàngal al islaam wujudaana wal kufra wal jahla xusraanan wa fuqdaana azka salaatin ila an massalaami ala muhammadin saadaman lillahi xaddaana walaali wa sahbi wal qaafina millatahu maa nawwarat millatul islaami buldaana wa baadu fal xasdu bil manzuumi madxatuna li samxatin summiyat bi jaarati laana asilatin adaban sharifatin nasaban karimatin xasaban tafdiluha xaana ñu tag rafet gannaaw bu mu sante yàlla julli julli ci yonent bu nopp mu ne li ma tax a jóg day mooy tagg ku baax ku yaatu ku tedd kuñ tudde léegi ki dëkk yàlla mu ne ko cosaanu la ci ay teggin ab yar sharifa la nasaban mu dafa sëtoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nañ maam ya ba mu dem ci àgg nekk ku tedd cosaan ku tedd aw doxin ba tax na feeñal ngëneelam nag jot na mutiatin rabbaha wa sayxa sayyidaha ardathu afaaluha lillahi idmaana ku toppoon boromam la waaye ko toppoon sangam ba la sangam ba ci sëñ Mor Anta ay jëfam yépp gërëm loon na ko ca te da ko sax sax lépp te yàlla doo nga taxoon nag mooy lal amul daal luñ ca la ngir intérêt lépp ngir yàlla la ardatu afaan lillahi idmaana da ko saxal te jëm yàlla doo nga tax nga soxna jaara seen jamono boobu la sëy metti woon jamono jooju la sëy metti léegi sëy mettee tut ndax ñoom dañ daan taxani mbaa ñu fëri ndéef di bojj ak kóor seeni loxo di wël di soq di wël njël ak seeni seen loxo léegi machine la machine am waaye bu njëkk loxo ko daan wal ba mu nekk sunguf ci gën lu metti la njël lañ daa jóg di wal balaa bëte set lépp lépp mokk wala nga dégg ñu naa wal njël dañ daa togg di fóot di rooti liggéey metti yëpp dañ ko daan def te lañ daan loole liggéey boobu ne la muy metti metti ak la muy des yàqul dara ci li ko digg ma borom ci jaamu waxuma la farata waxuma la sunna waaye mustahabaat yi sax daw ko sàggane yi ñu sopp rek musiya doy da lenn saa su nekk saa su xëyee di sàkku ngërëmal ki ko yàlla booleel lépp lu ñu jàpp na may mën na ko may ngërëm mu def ko njox ko war moo ju toll ni musta ànd bokkam taxaw ci diggante bi bokk taxaw bu sëñ moo ne ëtt tëll ci néegam fekk ko taxaw day daal def groupe sukk ba mu romb ko mu door jógat jógaat teggin yu mel noonu amatut war ma ju mel noonu amatut nga xam ne ci lenn ci ñi ko way sax am na ci ko xam ne na ne dadaa woor ay bëccëgam li ci ëpp di taxaw ay guddeem li ci ëpp jëmul nañ ci ñëw ci kanam wax ne waxtu njël ci la daa jàng alxuraan waxtu njël ci la jàng alxuraan su ca nekkee ba waxtu jot mu yeesal waajtaayam julli su jullee subaak fajar ak suba ba noppi def ay wirdam su wi dee ba noppi dem nuy ji sëñ Modou Anta Sali yeesal ak njëbbalam ci moom su noppee war kër gi bu koom set wicc mu dem nuy ji ay mbokki daaram njëkk ne Soxna Anta Njaay Mbàkke mi nga xam ne moom lañ ko féetale woon su noppi am na laax bu mu baaxoon toggal sëñ Mor Anta Sali ci ci finaasu boppam du ko jëleel benn bis saa bu xëy dana ko togg fu mu ko fu mu nekk mu fekk ko fi yutul ko wax dem na ba ay jamono amatul lu mu jënde soow mu jël ay takkaayam dem ba ca ëppal ne ko dama lay tayale takkaay yi nga di ma ko jox nga xayma xayma ko ci ñaata bis nga ma koy jox soow pël ba téye takkaay di ko jox soow bis bu set man dem ba nga xam ne àgg na ci bis bi nga xam ne ci la war a jeex ci la war a wel ci la ko pël bi laaj nag ana lii ngay def na loo ci jublu mu ne ko ah, xanaa sàkku ngërëm rek mu ne ko man ni dama bëgg ngërëm di daal jël takkaay delloo ko ne ko li fee maa ngi dund saa ba ñëwee dinaa la jox sow nga gis kon lool tàmbali payu yàlla la te jëf ju rafet joojee su ko toggalee laax ba jébbal ko ko noppi nag dem rootali dongo yi ca tool ya loolu la sëñ wax naa mas la jullita jàppul mas la jullita wirdul doora xëy sangam tuubal mooy xëy si mbor mooy li wax ci moom doora xëy sangam tuubal daldi wër këram buubal nuy ji ay dëkkandooxam nuy ji njëkk jigéenam soxna Anta Njaay mbokkam taala Anta moom togg di yekk yi jébbal taala Anta mooy ndékk la laax ba togg di yekki jébbal taala dem rootal dong yey xëy toolam soxna jaara moo sellal kon noonu la doon doxe ak dundam ba demee xuru mbàkk ñu wan la néeg ba néegam ba defar nañ ko wan la teen ba mu daa roote nga gis teen ba nam soree te foofa la daa roote ji di ko yanu di ci kër gi diggam ak mbokki daaraam wenn bayit mbii mu ci wax doy na sëkk walam tuhin ahadan walam tushin amadan walam tubin abadan man aabaha maana musta doyadal kenn musta suufeel kenn musta ñaawi teggin kenn musta yanu it ndabal fay walam tubin abadan musta yanu ndabal fay mu ne kon ku ko sikkal yow yaa sikk ku ko sikkal rek yow yaa sikk ay mbokki daaraam ña ca mag nday la leen jàppe ko ci mel soxna Anta Njaay ko jàppe woon nday te la ca moom it nday la ca moom cig bokk soxna Ibrahima aw ko jur moom maam maaram soxna jaar nag eh, maam Assa Waalo Ahmadu soxna Buso kon day mel na eh, Ibrahima Aw Ñaŋ mi bàyyi maam Anta Ndiaye ak Ahmadu Soxna mi mi bàyyi maam Asawaalo ñoo bokk benn baay kon day mel ni kon soxna jaaraak eh, maam maam Anta Ndiaye ak soxna Asawaalo mi ndeyu soxna jaara ay doomi bàyyi lañu kon ndey la ci moom ba nag mag ko it nag jiitu ko jigéen moo tax mu def ko ndey ñam ca maaseel mu def leen ni boppam di rafetal jëmi ci ñoom di leen sax tuumaal lu rafet tuumaal lu rafet mooy da daan jekk-jekk ràbb ab séer bu rafet bu baax dem seet ku ko yooyoo mu jox la ko ne la ne ko sonn Anta Njaay Mbàkke la ko jox mbaa ma ne ko soxna Faati Isaa la ko jox mbaa soxna Coro la ko jox tudd kenn ci mbokk daan ne moo ko jox te kooku du ko yëg sax loolu mooy dëgg-dëgg rafetal mooy jiiñ jiiñ sa mbokkum daara jëf lu rafet nga xam ne kooku day daje woon di ko sante di ko gërëm rek te du xam la nga koy sante lu mu doon ma nee ba xam lool na ku ci dajeeti mu mu dee sant nga xam ne soxna a defaat la mu defoon rek kon moom na lu noonu la doon dundi ak mbokki daram lool kon mat mat ko caa roye bu baax a baax mboole ci nag yaatu mooy lépp lu waay sàkku ci moom soo ko fa fekkee yaa ko fa bàyyi man xaawalu xaajaten fii milkiha wajadu noj xal xawaaji laa yal xaw na xirmaana mu ne kon nag képp ku ko sikkal du ci lum wax du ci lum jëf moom ndey mën naa bég te xam ne yàlla mooy faykat bi te dana ko fay man ayyabuha bila qawlin wala amalin bushra alayha fa kaana allahu dayyaana mu ne boole ci nag doon ko ab dimbalekat ku ko mas a seet xiif mu jox la nga lekk ba suur ku ko seet si mar mu jox nga naan ba màndi in aw zaaraha dhami'un saara bi ma kon yow mi bëgg xéewal bëgg am loo yóbbu sa kër jaaral ci soxna jaar rek boo fa jaaree léegi te nga am loo loo mën a yóbbu na nga fa fekk mbaa boo fa fekk loolu mooy yóbbin na fa fekk waaye rafetal gu ma sëkk yaa taaliban naa ilan fas al bi jaaratina fam wamrut biha talqa ihsaanan fa ihsaana rafetal ci kaw rafetal baraana ku ñëw ci moom daa sàkku ndimbal mu di ko dimbal di ko dimbale boo ko mujj far di ab dimbale ka di ataaha wa hiya tun jiduhu far tadd yun jidu insaanan fa insaana mu ne baraana it ku amuto ko ñàkk ñàkkoonom xel mbaa mu ñàkk xam-xam ba mu ñëwee ca sangam ba sëñ mu Anta Sali mujje nekk borom xam-xam bu dem xamalaat mbooloo ay kuréeli kuréel wa kam balidin ata lil ilmi sayyidaha fartadda yu'limu sabhana ibn sabhana wa kam haraira moom bi nga ko bindee wa kam daraira la bindoon wa kam daraira baraana ay wujj sëñ tubaa ko soppi ne ko da def wakam xaraa ira bari na ay gor ndax ñoom du woon ay wujj ay gor lañu woon waaw <laughs> du ñu ay wujj ay lañ doon sàmm sàmm ngor ci seen diggante wakam xaraa ira àllaatin xamil nafala yurkat na min dikraha id xawsuha baana baraana ay gor yu séqoonub ëtt yoo xam ne jàmbaar lañ lool ñu tedd lool sell lool di jigéen ñu baax waaye soxna na moo giimal seen tur ba kenn du leen tuddati lu ko waral mooy xawsu bi nga xam ne moom la yàlla jaarle ci moom soxna Anta Jaay Mbàkke rek bu ñu ko waxtaan doy na sëkk jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju sell doy na ca sëkk sëkk sëkk boo xoolee ak njabootam rek sëñ Mbàkke Anta nga xam ne mooy ab taawam te mooy taaw sëñ Moodu Anta Sali sëñ mu nga xam ne mooy taaw soxna Anta Jaay bi Sëñ Tuubaa bi Sëñ Mor Sali jógee jóge e, Saalum ñëw sëñ ca Pataar ci kër Amadou wetu kër Amadou Yàlla ndax ba xam nga booba Lat Joor la àndal doon Sëñ Mor Sali moom nitu lislaam nitu diin ko xam musta ànd ak buur ngir àdduna waaye bi nga xam ne Maba woote na xare ba ca Saalum te sëriñ sépp fekk si fekk si woon ko dafa diggal sëriñ suñu ñu daje seen biir waxtaan seet kenn kuñ jiital ñoom ñëpp ñu ànd daje waxtaan jiital sëñ Bousso bi def ko mooy seen kilifa ci lépp mooy ilimaan ji mooy mufti bi mooy xaadi bi mooy lépp ci biir la nag Lat Joor jóge Kajoor ndax booba dañ dañ ko dañ ko bëggoon a rey mu daw ñëw saaluñ ci Maba Maba ne ko duma làq ko dul jullit gannaaw ba lu dugg ci diine Maba door ko nangoo fat mu di ko jàppale ca xare ba bi ma daanoon na ba si ba fekk Lat Joor waa Kajoor a ngi koy woowaat ngir bëgg koo falaat mi dell nag la sàkk ci si mu woon sali ne ko damaa bëgg nag nga naa léegi ab jullit laa damaa war a dund diine ma bëgg nga dimbale ma ànd ak man soo demee suñ demee fa sëñ Bousso bi féete ma ba nga féete moo foofa loolu borom xam-xam soo ko waxee loolu sañu tagantu da ko woo ci diine sañu tagantu njëkk naa gàntu sax ba yàgg mu mujj ko ko nangul waaye musta ci benn dëkk ndax daara la Lat Joor pay la yor te daara ak pay mënuñoo jaxasoo moo tax bi Lat Joor ñëwee nekk kër Amadu Yàlla dafa dem ba daan ko sanc fa daaraam tudde ko pataar bokkut ak pataar pataar mu nekk fii ci yoonu Njaaréem fee mi ngi ci penku Njaañ xaw ko ndeyjooru tuuti talaata ba talaata lay dem lay dem kër Amadu Yàlla talaata ca ngoon mu gont kër Amadu Yàlla fekk fa pilante ya ñi ñu war a àtte mu àtte leen fekk fa laaj yi ñu war gàggante mu gàgganti leen delluwaat daaraam ba talaataati noonu la doon def bi Lat Joor jógee kër Amadou Yàlla ñëw eh, nu mu tuddati cilmaxa mu dem ba daanu ko sañ ci Mbàkke Kajoor dee tax na am doon de kon mu sëdd mu ci benn waram si Mbàkke Anta mii nag ca pataar la xëy xëy ne baayam ñaari jant ka ñaari jant xëjuñ àdduna dama bëgg a dem man ba fi sëñ Bàmba ñaari jant xajuñ àdduna kon kooku lu mu doon ci suba gi la ko baañ ca ngoon la te kooku mooy taaw son Anta Ndiaye Mbacke sëñ Modou Anta Sali maam si Anta borom gaawaan koo ci tudd ku nekk rek jagle gam am son Anta Ndiaye moom yi sax wax nañ ne di ko soxna jaar ci kër sëñ Modou Anta Sali bokk nañ ñi ko sabab li ko indi ci kër gi moom ci boppam it li wan ne jigéen ju sell ju baax la sëñ mosali keneen lañ ko joxoon moo soxna Anta Njaay Mbàkke sédde ko ngir mu wàcceel ko ko ba mu ñëwee nag ñu yëg ne ñooñu dañoo fomm ndax xam na daal ku jigéen yàq nañ boppam ko amul dara foofa da ngay da ngay sonn da ngay liggéey nanga naam ba mu ji dematut soxna yaa toogee ba mu wóor leen nag léegi dafa ñëwatut ci la ne ko ndax dama laa araam mu ne ko déedéet mu ne ko naan nañ ko fas mu dugg ci néeg bi loolu ko indi kese ñu moo doon nga gis loolu loolu lu rafet wax ne soxna jaaram itam moo ko dox ba indi ba mu ñëw ci kër gi moo tax sax mu féetile ko ko moo ko wàcce moo doonoon ndey dikkeem ci waxin mu amaan nag beneen geste bu mu def boo xam ne bu bu yéemee yéeme la sëñ Mor dafa dem ba yor ñant am kilifa gum fonk gum wekk xam ne defe naa nijaayam la xëy xëy dencal ko doomam indil ko ko doon nitug diine la fasu yéene romb ñant yi lislaam yamlu mun ta gàntu kilifaam googee te fasu yéene def lu yàlla araamal mu tëju yendoo tëju ba ngoon soxna Anta Jaañ ñëw fëgg ko ne ko xam naa lii la tax a tëju mooy sa mbokk mee nga xamul noo koy def mënoo ko gàntu te xam naa di mënoo mënoo mënoo jaggi mënoo mënoo jéggi ponkub lislaam kon dama lay ñaan nga jéggal ma man te bàyyi ma ci kër gi su ma jeexalee nga nga téye ko ci kër gi seetal seetal loolu goog ngoor ndax kenn amati na ko moo tax comme lim ne soxna jaar nag kon dafa suul ñam nekkal ñu ñu kawe lañ ñu tedd waaye nag ak tuddam fàtteloon fàtteloona seen seen aw turam far na seen turu ñoom ñaar ngir xawsu bi nga xam ne moom la yàlla fee fee la ñoom is xawsuha baana wa kam xaraa'ira allaatin xamil na baana mu ne moo tax nag tagg bi ñu koy tagg moom soxna jaar daj na réew mi fu ne ña ko fee tagg mu ne yàlla na ko yàlla jox barket a jox na ko amal bilaada jamian madhu jaaratina fallah yumdikuha yumnan wa iyaana tëje ko nag ci ne ci ne moom do soxna jaar doomi daara la doomi daara la ñe ko séq ñépp ndax dafa gane àdduna fekk waajuram bu jigéen yor daar di jàngale soxna at sawalo daar ju rëy la yoroon di jàngale jàngal alxuraan di tër di tëralal ba jàng xam-xam téere yi wax ne danaay jiital ab mël fa teg ci ab jàlla bi toog di jàngale wax ne guddi gu nekk daan naafila kaamilu alxuraan fekk waajuram bu góor it moytu yor daara di jàngale loolu mooy dëgg-dëgg doomi daara kon mu tudd nag ñi ko jege ne ñooñe joba ñam ñooy ñi gën a tedd ci kaw suuf muy baayam Muhammad Buso gën siiw bu Buso Hawa Mbaay ak mbokkam di tafsir Mbàkke Ndumbe mbokk ñu jàngal Sëriñ Tuubaa ak ndi eh, eh, nijaay nijaayam nijaay mooy tafsir Mbàkke Ndumbe ak mbokkam di sëriñ bu soobe neen ñetti ñii ñooy njigën ci sëriñ si boobee jamono amma abuha axuha xaaluha fahumu xayrul masaayixi axlaaqan wa adyaana wa ñoo gën ñëpp jikku gën a rafet ñëpp diine amma abuha mooy baayam axuha mooy sëriñ bu bi xaaluha mooy tafsir mbàkke nubbe su ko defee nag mel na ni mi ngi mi ngi mi ngi guddi xam naa dañuy jaxal li ma waxoon ne dadaa naafilay guddeem di taxaw ay guddeem di di di di war ay bëccëgam am na ci ñi ko wax muy sëriñ jaw at dagan yi moo ko ci xasidaam tulaasimul bayta xawfallaahi baari iha bi taatin wa ibadatin wa adkaara al layla qaaimatun wal yawma saaimatun turaaxibu rabba ijlaalan wa afkaara nen daa tax ko ak ndéegam ngir ngir ragal yàlla mi ko bind ci ay topp yàlla ak i jaamu ak i ak i zikkar tudd yàlla ay guddee mu di ko taxaw ay bëccëg mu di ko war ngir bàyyi xel borom ak fuglu ko ngir màggal ko ak di ko xalam waxtu nekk kon ni wax ci moom bari na xaju fi dama koy tëjee rek génn xasida ak wolof gu ma ca defoon ci ci aw taggam tëje ko waxtaan wi ma dellu jaaju fab xaliim sëpp ci daa caxta tiim sama koy teg ca tëriim di tagg kañ la muy mbiram ma dellu jaaju fab xaliim sëpp ci daawi caxta sama koy teg ca tariim di tagg kañ la muy mbiram ka yàlla fab teg ko ca kaw ñépp di séen ak di ko naw wareef la ñépp jëkk taxaw kañ ko tawoon ko sépp cam ka jàppe yàlla dëkkandoom ba far ca mel ni turandoom fàtte jëmam aku juddoom te far ko jaay jënd ngërëm ngërëm la jënde ak njëgam ci pas ak ci jëfam ba xëy ca dog sàqi fukkam am na manoore am na ndam rawam nga yàlla def na ko kemam ba yàlla bindu ko ummul kitaab yaxal na ko ko nangu noppalu xolam yàlla ne laa mu àqiba li xukmihi ci téere ba jiitu ga ñépp àtte ba dog na waxat jaffal qalam kookaa di jaaratul ilah xabibati sayfil ilah wa izzati xibbil ilah rijaal ya seere nañ jëfam yitteem ja kenn fekku ko ca jëfam ja kenn agu ca tapaspasam jiitu na ca ku dee fi tudd aw turam lam gën a ñépp di jikkoom te jikko yii moo di jiwoom njixam la sax na meññiwam ba daj ne fépp ak njariñam la ci jikko moo di jom te mooy mbañam rus ku ko am du def lu juunu ci cëram te du ko fas ci ab xolam tey du wax mukk safaan ci làmmiñam du am kiñaan da cay bëreeg bakkan ba daan te soxna jaar jom la am ba tax mu daa jokk ka dog bokk ga tey jokk ka dog kóllure tey jokk ka dog la ci a xàq la ci xàq ay dëkkam te daana jox it ko ko xañ te kum xamit dootu la xañ lenn yëfoon te mësta bañ julit ak ay xëy bi mbiram te daana jéggalit ku tooñ te moo ne moom mësul di tooñ mukk da daa reexe ka muuñ jaraat ci it xar kanamam nde yërmandeem ja moo bari tey mu def gor su gore du sàggi sag ak ay ware tey du xañ kenn cëram lépp lu yàlla xas dogal gërëm na lool day joyal mbiram ci yàlla aw ndigal ba xëy na jiitu ay kemam mu ñam gën ak ëpp na xel mësul di jàmbat ak dexul mësul di ñaan kenn ndimbal ku dul ka sàkk ak amam te tey woon na làmmiñam mësul di tudd senn cam ci fu néewul yàq deram waxu yiw ak noppi la xam talum xamit ci mboot du siiw nekkoon mbirum sëriñ bi siiw ca ak rawam te teel a siiw booba gënul nekkoon mu dem waaye mu denc secret yu yéeme yooyu ngir gore di sàmm àq ni mu ware jural na koy ndam ak ngërëm te yaatu gaam a gën a yéem ne mëstaxañ kenn yiteem li an na qalbaha salim yàlla ko fóotalu xolam mësul di yéene nit lu bon te mës ta wax kenn la bon te mës la def kenn la bon du lu mu xam du lu mu am lam yéene woon jëmm ja daal la yéene woon ñépp kanaal te lii ma wax du xiila xaal ku nekk seere nag wéram xelam rafet xolam rafet jikko jëyit lépp rafet jëfam yit yépp rafet te yii di finde ci mbatam sa waroon ko gépp wet du siggi xool ne jàkk nit du xas du jànni mukk nit du wax ko luy jurum meram du tudd nit fu mu néewul du wax itam lu mu xamul lépp lu yoonam it néewul daana ci jàpp njàmburam ba yàlla fay ko ab xolam jox ko la kenn mëssaam te moo di doom ji mëssaam lu jiitu dootu am itam te moo di Seyxanal Xadiim mi yàlla tànnoon ca Xadiim mu donn sëñ Muusal Kalim donn yenent yépp itam donn na Mustafal Karim di jëwriñam sax di Xadiim jëfal ko jëf ju ñépp yem am ca lu kenn mës am xamal ne caabi yooyu yàlla yii moo ko yoroon te nos yi moo ko téye woon ku yeewu jox ko ab tumam mar xam sa diine dongo bi sa sët bi tey sa soppi bi ñëw na fa gas sa bunt bi ngir nga duyal ko ay dabam damay taxaw lu far fi yam tafab samay mbir ne ko am te jéem a raw ci ak njubam ku roy ci moom rawi kemam salaatu rabbinal karim ala nabi xayril anim wa alihi ma alxadim wa sahbi dolli nuy gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah. ne daf ko xaaj ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi mi ngi leeralaat lan mooy ab sëy ak micro bi mi ngi ci leeralaat ab sëy nan la war a tëddee. nan la war a mel xaajum ñaareel bi mooy que sëyee nam a sëyee ñu waxtaan ci ñaar yooyu la jëm mu tàmbalee ko ci ab sëy lan mooy atteem loolu tam lu am njëriñ la wax ne sëy dafa dagan li tax mu leeral mooy nit ñi jamono bii dafa mel ni takk soxna dañ ko jàppee ngóora dañ ko jàppee daal doole joo xam ne lu ñu jaayante la te du noonu ab sëy tànnu nit la war a doon moo tax lislaam bàyyi ko ci dagan ab sëy du du doole sëy lan la mooy ne nit ki yëg na ne am na lu munta ñàkk ci moom ñàkk mën na ñàkk googu fu mu toll bu dee wóor na ko ne soxna mën na ko ñàkk ko mën na ko yóbbu ci mooy yàlla da doon farata ci moom bu ko wóoree ne ñàkk koo am tiiwu koo ma yàlla te bu ko amee mën na caa jaamu yàlla ci yor ko dañ koy sopp ci moom bu ko wóoree nag am geeg ñàkk gi teewul wala bokk nit ñi xam nañ ne kii am geeg ñàkk gi yam ci moom am na jikko ju ne ñoom yoo xam ne daal am soxna ak ñàkk soxna du ko tee def ab safaan ku mel noonu soxna day aram ci moom ñu xam ne itam soxna sunu boroom ni ko sëriñ bi waxee ci biir waxtaan wi daf koo daganal suñuy diggante ab sëy ngir mbir yu bari daf koo daganal suñuy diggante ngir mbir yu bari la ca jiitu mooy góor ak jigéen ku nekk doon kaaraange ci sa moroom ku nekk doon kaaraange ci sa moroom mooy ne góor gi yem ci soxnaam bam tee ko moo yàlla soxna sa it boroom këram doyloo boroom këram bam mu tee ko mooy yàlla loolu mooy tax bu demee ba jigéen yi yëgatul ne boroom këram bii kat lam daa sàkku ci moom amatu ko lislaam daf koy daf koy tànn loo nit ku nekk sono ba mu yàgg ak tële ko dañ naan la na ko may at mu faju su wéree baax na su wérut it soxna si mooy tànn bu ko neexee toog bu ko neexee bu neexee dem kon da nga foofu ne ab sëy kaaraangi la war a doon ci góor waaye kaaraange la war a doon tam ci ci jigéen ba tey suñu borom sant ñu ci soxna yi ne ñu nangeen ànd ak ñoom ànd bu rafet wa ashiruhunna bil ma'ruf si mi leeloo ko ci biir waxtaan wi ànd leen ak ñoom ci njëkk ànd ci njekk mooy nga sàmmal leen ñett yi ba ci jiitu mooy nga dëkkal leen ba ko ñaareel mooy nga dëkkoo leen ba ko ñetteel mooy la war ci ñoom ci wattaayu jigéen nga fexe bañ am ko loolu bu nit xasee def rek ànd naag moom ànd naag soxnaam ci àndin bu rafet ba te sëriñ bi leeral na ci biir waxtaan bi nit bu demee ba nga xam ne la ko waroon ca soxna see la ca ëpp def na ko te yëg na ne mën naa li keneen sunu borom may na ko ba ñeenti soxna loolu tam mat naa leeral sunu borom may na ko ba may na ko ba ñeenti soxna waaye loola sart ba ci suñu borom teg mooy maandu maandu mooy jigéen ju ne nga wàcce ko wàccuwaayam ba mu amee ci société ba muy dund loolu mooy maandu ndax jigéen ñi ñu bokkuñu bokkuñu ay wàccuwaay ci société yi ñuy dund ku nekk daal fa nga ko jëlee nam fa mel bu ñëwee ci yow nga wàcce ko wàccuwaay boobu ku ko def rek maandu nga si biir soxna dañu wax ne nag. ku amee soxna da ngay yemale te yemale moom munta ne li ma ne mooy si biiri soxna nga nga nga fexe ba màndu ca noonu itam bokk na ci li tax suñu borom may ñu ñu sañ a denc ni ko sëñ bi leerale mooy ame ca ak njaboot ame ca ak njaboot njaboot ku ne xam na ne ku ne xam na ne xéewal la waaye it leeral la ci biir waxtaan wi ba tey ne njaboot gu baax faw ci soxna yu baax rek la mën a jaar suñu Modou Bousso Dieng dalaa wax ne danaa wax ne mbalitum jabar sagari doom loolu daa wax ne mbubitum jabar moom sagari doom mbalitum doom rek loolu si mot daa wax waaye suñ bi tam na ci biir waxtaan bi ne bokk na ci njariñi sëy xefsun nasab wattu aw askan wattu askan mooy ab sëy li tax mu am solo mooy day dëgërlug bokk di sosug bokk ab sëy bu xasee am ci biiru bokk da koy dëgëral ba mu dëgër waaye ab bu amul bu amee feneen foo xam du bokk dafay sosu bokk moo tax bokk loolu solo waaye noonu it bokk na ci njariñul soxna day musal nit ci njaaloo wala yaasu billaahi sëriñ bi laaral na ci biir waxtaan bi ne njaaloo am na ñeenti musiba yu ci ne musiba bu njëkk bi mooy njaaloo day dindi leeruk xar kanam day dindi ak cofeel ci nit day wàññi wërsëgam da koy tabal sawara da tax suñu borom mere ko waaye loolu mën na si dégg itam ci safaan bi mooy ne kon ndeke soxna mën naa dolli nit ak cofeel diggante mag nit ñi te loolu feeñ na bu baax a baax nit ñi ñaare bu nit xasee am soxna sax am na beneen wàccuwaay bi ñu koy joxaat lii sallallahu alayhi wasallam wax ne soxna day njaaloo day wàññi wërsëg mën na si cay dégg itam safaan bi mooy ne soxna day dolli wërsëgu nit te loolu nag sax na ci alquran in takunu fuqara yughnikumullahu min fadlihi na ngeen denc soxna bu leen ko ragal def ngir ñàkk ngeen ñàkk ndax kat ba ngeen ko defee suñu borom mën na cee jaar ba ba wërsëgal leen waaye noonu itam day bégloo suñu boroom soxna de soxna soxna nit bu amee soxna am na sax ci téere ñuy saxal ne ci la ay tuyaabaam di gën a yokkee am na ñu wax lu mel noonu noonu itam leeral na ci biir waxtaan lu am solo loo xam ne mën na cee bàyyi xel mooy nit buy denc soxna lana tax mu war koo denc sallallahu alayhi wa sallam lim na ca mbir yu bari am na ñuy am soxna ngir takk soxna ngir ne daa rafet am na ñu koy takk ngir ne daa bokk ci yax bu rëy am na ñu koy jëlit ngir ne daa am alal waaye nag na nga jël boroom diine maanaam xadis bi mooy nit boo koy jël la tax nga di ko jël lu mu bari bari ba mu weesu jikkooy boppam diine mooy jikkoo nit la lay neex ci moom ba nga def ko soxna na doon jikko ju ne ci moom ndax lu dul loolu rek ci jeex la jëm nit boo ko jëlee ngir alal alal day jeex baa borom alal ja jeex nit boo ko jëlee ngir yax bu rëy dana dema dem ba jikkoy boppam dana tax sa doo xàmmee ci ban yax la bokkoon ndax gis nañ ku bokk fu ne ci lu ci kër gu baax dafa am safaan nit boo ko jëlee itam ngir euh, ngir aw askanam aw askan sëyuñu lenn rek mooy loo xam ne waxtu wu ne mi ngi dale ko ci nit muy diine wala bokk mooy jikko wala fii dañuy wax ne jikko boroom jikko boroom ci mbax loolu tam mat naa mat naa bàyyi xel lool waaye noonu it mu leeral ne tas gi bari na lool te tas wala fase yonent bi dajaa wax ne mooy li yàlla daganal ba noppi bañ ko abu xadul xalaali ilallaahi taala at talaaq yàlla daf ko maye ba noppi buggul ko ko def suñu borom day doxee noonu léeg day bañ mbir ba noppi digle ko day def lu mel noonu masalan suñu borom buggut la dee ba noppi digal Ibrahima ne ko ray ko day doxe noonu waaye it mu leeral ne bokk na ci tax passé mi bari mooy ne aada yi moo soppeeku aada yi moo soppeeku mooy nit ñi bu njëkkoon mag ñi dañoo amoon xam-xam dañu wax ne ndaw xamut mag munut di wax ne ciy ndaw bu xamoon ciy mag bu manoon mag lim xam moom mënatu ko ndaw lim man xamu ko looloo taxoon boo demee ba toll ci baraam soxna ñun la demal sa kër nijaay diw demal si sa kër bàyyi diw lu waral loolu mooy ne yow yow mii ndaw toll jiwut soxna xam nga li nga bëgg waaye nag xamoo li nga man nit ñi bu ñu am soxna loolu leen dal danañ xam ne daal bëgg nañ diw waaye ndax mën nañ ko yor sa waajur wi la xam nag xam kam la yebal ñaaree fam lay yebal saa yoo ca demee rek da nga ca fekk la nga bëgg ñu dem ba mu yàgg nag liberté juddu droit yi bari nit ku nekk yaay tànnal sa bopp loolu indi ñu monsieur bi ñuy dund tey nga xam ne ku jël soxna ren bu déwénee nga dool ci sëg wala subhanahu wa taala waaye noonu it bokk na ci lii gën a sonal. nit ñi mooy ne dañ dul bëgg nit ngir yàlla nit dañ ko nit nit da koy bëgg ngir yàlla moo xam góor la moo xam jigéen mépp mbir moo loo xam ne yàlla rek la ci dugal loola du jax mukk waaye saa yoo bëggee jigéen ngir ne moom kat ni ko suñ bi waxee ci biir waxtaan wi am na këram gu baax am na oto am na nangam doo sonal ci dara loolu nit mënoo ko fekk lépp a mat ba noppi nga di ko yilif ni nga ko bëgg a loolu mënta ne jigéen mënoo ko fekk mu yor boppam. yor liggéeyam man boppam ci wet gu ne ngay am genn kàddu ci moom da neexu ko loolu mënta nekk ku bëgg yor sa njaboot da man sa njaboot waaye leeral na itam ci biir waxtaan wi lu am solo ne li gën a sonal nit ñi nga xam ne sabab na daanaka tas gu baree bari kujje gu metti ku kujje gu metti te wujju du dara lu weesu rek li ñu koy wax bokk wërsëg te niñ def ba indi la fi noonu la ñu def ba indi fi keneen te li la indi war na fee mën a indi keneen sunu borom mi ko yoonal bu ko yoonalu toon jafe-jafe yu bari dana juddu kon ku ji gu bari daanaka amul solo nettali na ci xista bu am solo boo xam ne mi ngi doxoon ci soxna Anta bi nga xamee ne si moro ànd sëli am na ñeenti soxna ginnaaw bi ñu bëgg ko jox keneen xamut nu muy def soxna sa ne ko danga may bàyyi te wàcci ma ci kër gi tëjal tëjal kooka dañuy wax sax ne moom soxna Anta Njaay moomu leeral na ko ci biir waxtaan wi bi nga xamee ne nekk na ci kër gi ab diir dafa gis soxna la ci kër Mam Mati Buso magam mu ne fa dafa jàngale alxuraan mu ne ko gis naa ku baax koo xam ne bëggoon naa nga indi ko ci biir kër gi kooku xam ngeen ne du wujje bëggoon naa nga indi ko ci biir kër gi si mu ante sili dem waxtaan ak soxna sa mu laaj ko ne ko ana fa yor mu ne ko ah, yoruma fa alal de waaye tàmbali naa ab kaamil mu ne ko àggale ko te indi ko kaamil boobu ci lañ canale soxna Jaaratullah kon xam nga ne soxna si ci yaatal kër ak yaatal lu baax gis nga njëriñ li mu indil àdduna si waaye mu indi itam ay solution ci tas gu bari gi bokk na ca mooy li war a ànd na ànd ndax nit ñi dañoo am ay aada boo gisee ñu lay takkaloo sa mbokk ñaareel li ci ëpp sa mbokk ngay bokkal aada te te te te bokki aada bokk na ci dë dëgërlu sëy Sëñ Tuubaa dafa ñaan ñaan gu mat a bàyyi xel dafa wax ne waxut la naa zawaata diinin faa iqaat yàlla maa ngi lay ñaan soxna yu am diine dégg nga xam nga loolu doyoon na waaye da caa dolli wa na naa fiq yàlla nga ñu dëppale yàlla nañu am soxna yu am diine te déggook ñun wa baynana wa fiq maal awlaadi yaa malik al ibaadi wal bilaadi waaye bokk na ci itam ci yi tax ba wàcc gu bari gi mën fay jóge nit ñi nañ xam ne ab sëy ci ngor rek lay tegu mën a wéy ñaari gor rek a koy séq dañuy wax ne sëy li koy dëgëral ñett yii la wóolonte wormaalante tey waxtaan li too bi nan respect ak communication wóolonte wormaalante nit day wormaal soxnaam lu mu suufee suufee sa soxna la bul koy saaga bul koy ñàkkee war ci biir nit ñi loolu bukk ci ab sëy waaye soxna it day wormaal borom këram bul ko suufeel ci kanami ganam bul ko suufeel ci kanamu nit ñi waaye bul ko suufeel itam ci kanamu njabootam kon yooyu def naa bu ñu ko bàyyee xel tas gu bari gi mën naa wàññi ko bu baax waaye nag mu jeexale waxtaan wi ci soxna su tedd wax ci lu am solo loo xam ne daanaka ministre wax lu ko génn mooy soxna su sedd la woon soxna su sel la woon ku amoon diine la ku amoon teggin la ku baax la lii si ma sama Mariama seede gis naa ci Minanul Baaxil Xadim foo xam ne si Mourou Massamba jub ci boppam moo wax ne damaa dégg damaa dégg ñoon soxna soxna jaar da ku baax la dafa baax dafa laa biir nee na ma bàyyi ba jamono yi naaj wu tàng naaj wu tàng lool soxna si demoon yi bi mu rootee ba ñëw. nee na ma tay tay lu ba këpp ndox ma ngir seetlu ko nee bi mu ñëwee ma ne ko ah soxna si daa ndox mi ndox mi këpp na mu ne ma solo amul solo amul benn solo xanaa kay sat la si ma si si ko doon rek moo jaaxal waaye amul benn nee na booba ni ndox jafee bi ak ni mbir ci moom ci laa ne ku baax a ngi nii ni ko si bi wax nañ ne soxna si daawul taxawandu ak si mu ànd sali moom ànd du taxaw mu taxaw daawuñ duggandoo ci néeg itam fu mu jubee néeg bay dugg bu si ma andi sali ñëwee day dëppaat sukku ba ma andi sali jàll ba noppi mu doog mu doog jàll ci biir waaye loolu suñu borom fay na ko ci Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa euh, waxuma la nit ñi taxawandoog moom waaye wax nañu Sëñ Tuubaa ngelaw sax dawul doxandoog moom wax nañ loolu wax nañu sëriñ bi bu daa waxtaan doo gis picc mu jàll ci ci ci biir jataay bi euh, Sëñ Cheikh Sarr nee na waxtaan bi mu jëf 1917 nee na boobu mi ngi ko def ci diggante 11h midi ci yoroon ci la ko def mi ngi ko defoon ci pencum njaareem mi am na jigéen ñu toog ñoo xam ne ñu ngi boot seeni doom ci naaju tàng wi waaye bisiñ bi di wax ba nuy wax ji daanoo dégguñ benn xale jooy fa loolu nettali nañ ko ci moom suñu borom fay na ko lool si mul xëri nee na daanañ gis ne loolu sax ñëw na ci euh, nafaxaatul miskiya mu wax ne sëriñ bi dalaa def su ma saan a jóg mbooloo mi tatafu ko waaye léegi da gis day jug dem dox la muy dox ba ñëwaat te kenn du mën a jug fi nga ne loolu mooy teggin ya soxna jaaratullaa mayor si mën a loolu ko sama borom fayal ci Seex Bamba Xaadim waaye noonu itam liggéey boobu mu doon liggéeyal borom këram suñ boroom yëkkati ko ci ay daraja may ko ci ngërëm lu yaatu ku ne xam na ne Sëñ Tuubaa daa bokk ci ay ñaanam fala tajal li ahadin sabilan alayya fil xaal wala fil maal daf ko ñaan yàlla lu bari sama mbir bul ci boole kenn loolu mooy maanaa wax yi sama mbir bul ca boole kenn looloo tax bi muy dem ci géej gi àndut ak kenn li simple nan ba muy ñaan amul sax ku ko waxal amiin waaye ñaanam googu lu ko suñ boroom nangu nangu nangu nangu tàbbal na soxna jaare ca biir ci naka mooy lii simple laat nett li woon wax ne sëriñ bi dañ ko dugal ci kàmb goo xam ne dañ caa defi xal ba kàmb ga xóot biñ koy sànn ci kàmb gi nee na Cheikh Abdou Khadir nii fekk na dogale na ko foofa ne ko dama bëgg ci sama daraja ma fegal la musiba bi ñu lay dugal sëñ bi nee na ma ne ko bàyyi ma ak sama borom nee na Seydina Jibril fekk na ma foofa ma wax ko ne ko kat sama borom moo gën a xam sama mbir kon ñoom ñëpp sëriñ bi gën ñu leen ci mbiram waaye nee na awma lu jekki-jekki rek gis soxna Jaaratullaa jàpp sama mbagg yi ne ma soj jët génne daal ma doxal àggal sab liggéey loolu loolu ci bu rëy rëy la loolu cër bu rëy rëy la boo xam ne soxna si am na ko kon ñu mën cee bàyyee xel ne suuf su baax moo mën a génnee meññeef mu baax nafaatu miskiya dafa wax ne dafa wax ne soxna jaara bi mu yégee ne am na lu àndal te sëriñ bi at mooma lépp da ko woor ngir wormaale ko sëriñ bi at moom moom mépp da ko woor waaye it doy na wane ne sunu boroom sunu boroom mayam yi muy maye mi ngi ko wékk ci ittee jàmm bi ci itte nit ki inna allaha yarzuqu ala qadri himmatihi ni ku nekk wërsëgam ma ngay toll fa itteem toll soxna si itte ju kawe ji àggoon na ci bi nga xamee ne ñi ngi ko waajal ngir indi ko kër si Maodo Sali dafa ubbi kamil xisi boobu ñëpp ñëpp dégg nañ ko wax ne li ma jaaxal mooy aaya bi suñu borom wax ne Muhammad mooy mujjug yonent waaye kon dinaa waat ne danaa fi indi ab yonent waaye danaa fi indi fa koo xam ne fu ñu tudd yonent tudd ko fa man damaa jàpp sax ne loolu bokk na ci li ko sama borom fayee ci waxam jooju li suñu borom wax suñ Tuubaa ne ko yaral nit ñi ci yëkkati seen itte rabbi asxaabaka bil himma jëf ju ne am na ak pay kon kooku mooy soxna Jaaratullaa euh, dañ doon euh, taaliq rek ci waxtaanu sëriñ bi am na solo lool daanaka daf ñoo jéggi ba mënuñ ca taaliq ñu ngi lay sant bu baax di la wax ne jëriñoon nañ ko dégg nañ ko di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ Mamor Mbacke xam sa diine te ma di ko faral di ko tooñe naan ko dama la ciy dollil te di ko xamle ci waxtaan waa am solo wi nga xam ne indil nañu ko ni ko sëñ Abdou Khadir waxee léegi sëñ Jili waxtaan wi leeraay gi daa tax ba boo ci bëggee dolli dara di ko commentaire mën ngaa far lëndëmal waaye mel na ne moom Sëñ Abdou Khadir li mu ci indi mënu ci woon a ñàkk ndax commenté na wax ji kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm mu mel ni tomb bi ñu doon waxtaane li waral kuréel bi tànn ko mooy ni ko sëñ Mamor wax waxe sànq ñun ñëpp bàyyi xel gi ñu bàyyi xel jamono fi mu toll ak ni niñ koy dunde ak liñ ciy gis day mel ni nag li may wax li may wax tout le temps euh, bala ngaa xam ne waxkat yaa ngi wax te li ñuy wax ñi ñi ngi wax liñ war a wax mooy nga dem seetib sëriñ ja ju mu mën a amee ñaare du la wax lu bees lim la wax yëpp loo déggoon la kon problème bi ci ñun mooy jëfe jëfe nag engagement la laaj kon boo amee dara lu ma ci commentaire rek mooy liñ fiy waxtaanee teñ di ko dégg waxtaane wuñ ko nii rek ngir ne dañuy dajale nit ñi wax ñu jàll déedéet dañoo bëgg muy def jeexital ci ñun loolu nag ak ak dégg la laaj akub jëfe kon ñi ngi sant bu baax sëñ Mamor di jéggalu bu baax kilifa yi ci jotaay bi daanaka euh, jotaay bi àgg na ci jeexital ga ñu ngi sant bu baax waa daayira asxaabul jannati ci njiitul sëriñ Basiiru Buso mi toog asxaabul jannati mooy ñiy seetal jumaay Touba soxna yooyu ci seen taxawaay ndax bis bii ren ñoom lañ ko duppe ngir seen taxawaay seen pësteef seenuk sellal ak seenuk dogg ci seenuk liggéey ñu ne woon dañuy tànn kuréel boo xam ne bokk nañoo ak ñoom ay gisin te naw leen ca la ñu nekk tudde leen bis bi invité leen ci ngir xamal ko nit ñi ndax liggéey yu mel noonu yi dañ caa war a dañ caa dañ koo war a xam waaye dañ caa war a bokk ngir yaatal ko kon dañuy jox sëñ Basiiru mi nga xam ne moom la waa asxaabul jannati jox seen kàddu bu ko defee mu sànne ay kàddu rek ñu gàttal léegi insha allahu taala mën naa toog foofu mu mu bismillah aoudu billahi min alsheytani arrajim bismillahi arrahmani arrahim salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi nuyu nuyoo nuyoob lislaam te mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadinil Muntaqa di ko ñaanal sunu borom subhaanahu wa mu yàggal ko fi lool te yéene yi mu am ci liggéeyal sëriñ bi mu àggale ko nu kawe njort te nu ànd ko ak moom di nuyu kilifa ak jataay bi sëriñ Fàllu Mbàkke moom sëñ Abdu Ndaam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ndokkeel ci bis bi nga xam ne mooy kilif kilifteef gi ci moom la nekk ak mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci ak ak sëñ Moodu Mbàkke ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi di nuyu bu baax sëñ Mamor xam sa diine ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne moom la def di ko nuyu bu baax di ko sant bu baax ci jariñu gi nga xam ne jariñe na ko ci waxtaan wi mu def di am mbégte bu baax di ko ñaanal sunu borom subhaanahu wa taala mu yàggal ko fi te yokk xam-xamam mu gën koo mën a tasaare ci lépp rek tënku ci liggéeyal sëriñ Touba te mu ci am am ci ngërëmal sëriñ bi nga xam ne moom lay xeeñtu waxtu ne kon ni ko sëriñ moo du waxe ñu am mbégte bu baax ñëw fii ci ngoon ngir daraja joo xam ne waa kuréel gii di ànd takku liggéeyal soxna jaara dañ ñu ko féetale ci turu daayiratu asaabul jannati bi nga xam ne mooy nekk ci jumaa ji di ko setal rawat na alxames ju jot ñu ci xëy muy daayiratu asaabul jannati pour ñu xamle rekk tuuti ci seenu doxalin xam naa duñ ci guddal sax ngir waxtu wi xaw naa sori waaye ginnaaw bu ñu fi teewee ci mbooleem daayira bi ñëpp mën nañ ne bari teew nañ waaye xëy na ni nga xam ne moom lañ jaboote dañoo doon ay mag ak fañ bàyyi koo xaw a fasantikoo ba ñu ci baree bari yeewi nañ leen ngir yërmaande jooju waaye bi ñuy ñëw yëg nañ li nga xam ne daraja ji nga xam ne moom ngeen ñu jox ba waajal nañ ko ba ànd ak mbooloo mu bari waaye ngir yërmaande ak fañ dëkke soriyante lool moo tax ñu yeewi leen desande fi ñun ñi nga xam ne xëy na wëlbatiku dana xaw a yomb ci nun kon kuréel ànd liggéeyal soxna jaar ñu ngi leen di xamal ne dayre bi yëg na bu baax a baax li ngeen ko jox fonk na ko bu baax te it def na ci yitteem ju baax a baax daayira bi nag fi cosaanoo bàyyi sëriñ Mbusoobe Busoo mi nga xam ne mooy doomi sëriñ Mbàkke Kaani bi nga xamee ne sëriñ Abdou Khadir wàcc na ab liggéey 1991 du ko sori sëriñ Saliou Mbacké toog xalifa ba am ñetti weer ci la àndoon ak lenn ci ak njabootam ak ay mbokkam ay rakkam demoon ca sëriñ Saliou Mbacké ne ko ñun day dañ doon laaj si ndigal loo xam ne day jëm ci setal jataay booba nee na bàyyi sëriñ bi mu koy nettali nee na fala fekk sëriñ Moustapha moom Sëriñ Saaliw sëriñ bi jug toog laajaat ko li wax bàyyi sëriñ jaar foofu ne ko ñun dey dañ doon laaj si ndigal loo xam ne day ci jëm ci seetal barab bi nee na mu ne ne hum yéen lii day mel ne ab cër la boo xam ne sëriñ Tuubaa da leen koo dencaloon nee na fekk na bis booba soxna may moom sëriñ Tuubaa andi woon na fa ndab yooyu nga xam ne moom la daa faral di andil sëriñ Saaliw neena sëriñ Saaliw wax sëñ Moustapha ne ko xéewal yi nga xam ne soxna may andi woon na ko fi indil ko bàyyi sëriñ ak ñi mu àndal ñu tàmbali ci seen xéewali ëllëg kon foofu la tàmbalee sëriñ saaliw ne ko am ngeen ci ndigal am ngeen ci ndigal te da ngeen ci am ngërëmul sëriñ tubaa loo xam ne bu ëllëgee maa leen koy seereel mu ne kon dana jaadu dangeen man alxames yu jot na ngeen fexe ba jimaa ji set wicci ba ñiy julli si àjjuma bu ñëwee na doon foo xam ne fu waay nekk rek danga fa mën a julli ngir lam làmboo ci ak laab lépp dana ca nekk kon ndigal li foofu la bàyyikoo ci sëriñ Saaliw boobee ba léegi nag bàyyi sëriñ àndoon ko ak ay rakkam ak dongo yi nga xam ne moom la ko sëriñ Touba booleel ñu def mu def ci yitteem jépp njabootu boppam gi nga xam ne ay doomam wala ay taalibeem mu yar leen ci ba yëmaliwu koog dara diir bi mu fiy nekk loolu moo doonoon yitteem ji gën a rëy ndax saa buy waxtaan ak ñun loolu lañu daa wax bokk na ci kàddu yi mu daa wax sax liggéey bi ni mu ko joree ak bi ko Sëñ Saaliw joxee maanaam alxemes ji bu masaa dajeek màggal gi nga xam ne moom lay defal baayam danaan ñaar rekk a fi ne ñu bàyyi màggal gi te dem ci liggéey bi wala ñu boole ñaar yëpp waaye ndigalu Sëñ Tuubaa li mun ta fay ndax li nga xam ne danga koy yaakaar ak li nga am yaqin bokkuñu liggéeyub sëriñ tubaab yi dañ ci am yaqiin kon bokkut ak li nga xam màggal gi nga xam ne dañ ciy yaakaar rek ndax danañ ci am ak pay wala déet kon foofu la ko àggoon soxna yi nga xam ne ñoo ànd ak moom doon ñu jàmbaare doon ñoo xam ne alxames ju jot li ci ëpp fi lañu jullee fajar bu ñu xëyee bu biir jumaa ji ba mu set li ko wër ak ba ci kër yi nga xam ne ñoo war jumaa ji sax danañ ko seetal ba mu set wicc loo xam ne mbalitang fa ñu tonni ko waajukaay ya fa nekk ñu raxas ko lépp ba mu set ñu door a wàññi dem seeni kër du doon ay mag yoo xam ne yu jaayante lañ te lépp loo xam ne yelloo na ak barab bi dañ koy yittewoo ci ak làpp ci sollu jot ci seenu làmmiñ ñu saxal ci tudd loo xam ne tudd yàlla buñ nekkee ci jumaa ji ba ba ñuy génn duñ ci ànd ak coow duñ ci ànd ak waxtaan loolu rek mooy seen seenub liggéey kon mbooloo mi daal ci tënk foofu la tàmbalee ci loolu lañuy dox ba ñu agsi fii bay sëriñ nag liggéey bi ñoroon na ko lool ñi mu fi bàyyi te sëñ kër bu Bousso ne ci bopp bi di xalifa bi képp ko fi masa nekkal sëriñ bi dem nañ ci yow yeesluwaat ndigal loola mu jox leen ci li ndigal bi nga xamee ne sëriñ Muntaxa Muhammadul Muntaxa moo fi nekkit ndigal loola yeeslu nañ ko ci moom mu joxaat ñu ci ndigal soññu ñu ci xam ne li ndigalul sëriñ Touba la loolee tax ba fi suñ ni tey jii alxames ju jot ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñun danañ jaayante ñëw ci jumaa ji buub ko ba mu set ñu raxas ko lépp loo xam ne luy taqal la wala lu yëllawut ak barab bi la ñu génne ko fa di ko def it poroxaan bu màggal gi jubbee danañu fa dem li nga xam ne mooy ay góor nga xam ne bu dee biir jumaa ji ñoo fiy féetewoo ci biir poussière bi nga xam ne moo fiy takk ak liñ war a wàcce ci ay lënd ak lépp loo xam ne nen na ci biir jumaa ji ci aajowoo setal góor ñi ñoo fay nekk noonu it lañ koy defee ci poroxaan bu màggal gi jubee ñu àndandoo dem fa sàkk fa bis yoo xam ne dañ fay fare ca barab ba yeesal ko ba mu set wicc ba nga xamee ne ku fi ñëw ci màggal si da xam ne fii am na ñu fi jaar ba incha allahu taala niñ ko daa defee ñu ngi koy waajal loolee mooy liggéeyub daayirat asaabul jannati di ñaan yàlla ngeen ñaanal mbooloo mi bu baax a baax sëriñ Fallou ñu ngi e, dagaan ci yow ak mboolem ñi ànd ak yow ñaanal mbooloo mi ba liggéey bi nga xam ne ñoom la teg ci seen loxo liggéey boobu li nga xamee ne moo taxoon sëriñ bi teg ko ci seen loxo dara bañ cee yàqu ñu àggale ko fu kaw a njortu ci barkeb sëriñ Touba ñi nga am mbégte bu baax nag di sant bu baax a baax kuréel gi ni nga xamee ne moom laa ko waxee woon sëñ Modou ba muy ñëw ci nun ne ko sëriñ Touba day suñu borom subhaanahu wa taala jox na ko lépp rawatina dëkkam bii di Touba nga xam ne mbooloo mo lépp loo xam ne lu ñu war a def rek sun borom mel na ne jagleel na ko mbooloo moo xam ne ñoo ko war a def xanaa kay ak ñàkk xamante ak ñàkk euh, jàppaloo moo moo am ba gëndaloo gi war a am amut waaye mel na ne sëriñ bi lépp loo xam ne soxla na ko ci dëkkam bi am na mbooloo mu juddu taxaw fas yéene dox ca loola mbooloo mii nag kenn la ci mbooloo yooyu yàlla na ko suñu borom gën a dëgëral gën koo kàttanal ba nga xam ne jéego yi nga xam ne moom lañu tàmbali àndandoo liggéeyal sëriñ tubaa ak di xeeñtu jeexiti soxna jaara buso te ni ko ni nga xamee ne moom la wax ne sëriñ bi daana wax soxna jaara fee di poroxaan képp ku fa dem benn nga fekk ma fa la ma fekk la fa muy liggéey boo xam ne mën nañ ne kenn ku ne mën naa waat ne sëriñ tubaa gërëm na ko li tax mooy sëriñ tubaa dafa teg soxna jaara foo xam ne tegu fa kenn ndax soxna si daa mat léppam moo tax képp koo xam ne rek jug nga ngir xeeñtu ay jeexitam di tasaare ay liggéeyam sëriñ tubaa gërëm na liggéey booba loolu murit yëpp mën nañ koo waat kon nag seen mbooloo mi ñi ngi ñaan yàlla bu baax a baax lii ngeen sos ngir liggéeyal soxna jaara sunu boroom subhaanahu wa taala mu kàttanal leen ci bu baax a baax ba ngeen àgg fi fu kawe njort ba lii nga xam ne moom ngeen sumb mu mel ne bu ngeen doxee ba ca kanam gis ne Serigne Touba nangu na liggéey bi nangu gu wér a wér goo xam ne du am nattable ci yokk ci saahir ak ci baatin ak ci mboolam wàll yi nga xam ne ci la ab mbooloo di yokkoo daal yàlla na seen seen mbooloo mi yokkoo noonu ba ngeen yëg ko ci saahir ci baatin te lépp lu ngeen ci séentu ngeen am ko ci ni koy njort ci barkeb sëriñ Touba am nañ mbégte bu baax ndax waxtaan wi rek ñëw teewee ko rek fekkee ko rek yaakaar naa jar na doxe fu sori ndax ki doon waxtaan waxtaan wi li mu war a jàllale ci xam-xam lépp yemb na ak sëriñ bi nga xam ne moo ko doon commentéral lépp rafet na te mënees na koo jëriñoo li ci des rek mooy nu jëfe ko ni ko mbokk mi waxee léegi sëñ Abo Mbàkke maanaam yaakaar naa jamono jii moom boroom xam-xam yi noppeetuñ waaye nit ñi ñoo jëfewut waaye nag li am solo rek mooy nañ nañ jàllale rek comme yonent bi sallallahu alayhi su loolu ak suñu borom waxoon ballix kon nañ jàllale rek bu kenn bu kenn noppi lépp loo xam ne lu lu nit xam ci lu baax la na koy jàll rek ak loo tàyyi tàyyi ndax bu doon fukki nit a bu ko ci benn nit jariñoo rek loola xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wax ci loolu doy na sëkk kon yàlla nañu yàlla defal ak dóob dégg ak topp ci xiir nu ci liggéeyal Serigne Touba te Serigne tubaa nangu liggéey bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi sant waa kuréelu Majmahun Nurayni ak waa ahlu Tuxfatu Tëngéej di mbokki taalibe yi sëñ Mahamadul Murtada ak waa daairatu Saadatul Muridin nga xam ne moom sëñ Murtada mi moo ko jiite. Euh, te ñu nekk fu ne ci réew mi rawatina ca Dakaaru ca Tëngéej ñu ngi sant bu baax beral cant bu baax sëriñ Seex Kaala Buso mii toog ak waa daara yi sëriñ Abdou Moutalib Buso ndax ñoom cant gi du bis bi waaye li ëpp ci xale yi kër gi moom mii moo leen jàngal alxuraan ba ñu mokkal kon ameel nañ ko borub cant ñu mokkal alxuraan mokkalin wu rafet waaye mu boole ca yarub diine yarub murit bu rafet rafet boo xam ne kawe na njort kon ñu ngi koy sant bu baax bu ci boolee taxawaay yi nga xam ne taxaw na ko ci bis bi ci kaamil yi nga xam ne jàng nañ ko fi di sant ak dalal ak a nuyoo waa daaray Abdou Lahad Afe waa muassasatul Afi ñi ngi ci jotaay bi dinañ jàllale léegi ñoom it seen i yëngu ci wàllu woy yi ma ne sax um siya sixri ya ndax ngoon gi jàll na waaye dinañ indi ay ay taalif yu am am solo incha allahu taala léegi ndax dañoo bëgg a yëkkati yenn yi kàddu cant rek ngir mën a bàyyi kilifa yi àgg ci biir ku ne xam ne it ne bis bi daan nañ ko ànd ak ay jàmbaar yoo xam ne kenn mënu leen woon ci liggéey bi seenu seen pësteef seenug dëggal seenug dogu képp ku nekk ci kuréel bi rek leeroon na la suñu borom def li gën ci ñoom ñu jiituñu ren ji ñu leen doon delloo njukkal ak a fàttali ko ñu leen di sàkkul ñaan ci kilifa yu baax yi nga xam ne nekk nañ fi muy soxna Khoudia fay ak docteur May Sandong ak jëwrin Ibrahima Gaye suñu boroom def ci ñoom ab dogalam ñu ngi leen di ñaanal suñu borom dolli leen yërmande ak ngërëmul sëriñ Touba ñu ngi sant bu baax sëriñ bi nii rek la ànde ak ñun mooy lépp lu ñuy def te muy lu baax moo cay jiitu mooy digg ba mooy mujj ga di ñu soññ waxtu wu nekk di yëkkati alalam di ci def ba noppi léeg-léeg mu bette ñu jotaay yu xéewale yi ñu toog rek mu jékki-jékki ñëw ci suñu biir loolu nag di ak di ak soññ goo xam ne li nga ci jublu ñun xam nañu ko ñu ngi yeesal suñu jaayanteeg Serigne Touba te di ko jaare ci yow bu baax a baax te di ko seereel mbooloo bi di sant bu baax Serigne maam Serigne Bousso mii nga xam ne moom it nii rek la ànd ak ñun waxtu mi ngi ñuy soññ ci lu baax di ci dimbali ci xam ci ay xalaatam ci alalam ci léppam kon ñu ngi koy sant ak njabootam bu baax a baax yaakaar naa ne loolu mooy yennati kàddu cant yi nga xam ne jaar na fi di delloo santaat sëriñ Mamor Mbàkke mi bañ tàmbalee bis bi ba léegi moom lañuy àndal waxtaan wi ñu ciy def te at mu nekk mu defal ñu ci ak yombal ak won ñu ne liggéey bi maa ko war jiite ndax warteef la ci moom mu jàllale message bi nga xam ne yore na ko te muy njàngaleem sëriñ bi kon ñu ngi lay sant bu baax sëriñ bi di la ñaanal di la jox sa wàccuwaay xam naa kon waa Muassasatul Hafiyah ci aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi leen di nuyu bu baax a baax te leen ziyaara bu wér tey jiital ci nuyoo bi kilifa yu tedd yi nga xam ne ñooy kilifa yu jotaay bi di rafetlu bu baax a baax yëg gi ba yëgal nu ko nga xam ne soxna maam Bousso ak sëriñ Cheikh day suñuy wóolëre yu yàgg ca daara ja te mbokkum daara rek mooy mbokk donte waykat yi xaw nañ fa yàgg lool te it war nañoo jëli dara suba waaye loolu lépp kóllëre gi ma waral ñu mën a toog xaar ba heure bi incha allah kon dañuy jox sëñ Moustapha mu jiiteel ay abyaat bu defee ñu waykat yi ñu dool bi aousu billahi min alsheytan irajim bismillahi rahmani rahim salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di leen ziyaarewaat ñi nekk ci baas bépp ñu ñëwaat rek comme niñ ko baaxoo defee di ko ànd ak waa daayira asxaabul nga xamante si ni waa niñ ko baaxoo defee daa ko ànd ak mu assasatul afiya di dirasaatil ismaila kuréel takku ànd liggéeyal soxna jaara ni ngi ko baaxoo defaat di ci ànd ak waa mu assasatul afiya saa yu ñëwee ah, incha allah xam naa dañ koy doore ndax waxtu wi daa xaw a xat bismillahi rahmaani rahim audu min ashaytaani mi bëgg a noj ci rabbi buumi diine ausu billahi min ashaytaani mi bëgg a gas te sulli reeni diine ausu billahi min ashaytaani mi bëgg a xencu dencu gaay yi diine ma musluwaat ci moom te njuuy sëtam ya ak képp ko ñoom ñaara bokk lor ya di dellu sant yàlla buur bi ak sant gog saa xol delaa ko tibbe te julliwaat ci yónni nam bam yónni ko fii mu sax ci julleek jaamu te sant sayxunal xadiim suñ yaakaar mi kenn xamut lum doon ta doon ko doy waar li feek samak nosang ci man te rotagut man duma jóg ci di ko way ak di ko wut ndax moo fi def lu kenn deful te moo fi am lu kenn amul kon moo yeyoo lépp lu am ba diine dee yuuxu di woote wàllu ngirug sëngéem moom moo ko jël te wàllu juróomi ñetti fukki góor yu toftal ci ay sëriñ lañ yóbbu woon kenn demul moom rekk a dem moom rekk moo julli fa géej kàbbar ca kaw ndox ma te julli moo di géej moom moo fi taal ci diine taal bu dootu fay ba abadan kon yàlla na buur bi dolli koy ngëneel yu rëy muy sax di sax basaa taxaw li feek ñu weex ñi ak ñu ñuul ñi moo ci raw yan bañ yanoon xutbu ya ak labdaal ya te àttanuñ ko moo ko faf raw gaaya Moussa moo ko wax te muy lu péng jàmbaar la woon woykat bu way la déng xaaral ma faf taxaw lu ngir mayam yi xajul ci way ak ci wesar ak bisi sa njaam su xeebu Moustapha ngi tàllal loxoom di ñaan nga def ko ndaw lu semmal taxaw naa di ñaan nga wéy ci màgg li fekk ki tax pi ñu sax ci tàgg bismillah xam naa kon loolu rek dañ ko doon ubbee kii bi xam naa dañuy woo suñ góor ngir njëkkanteeg waxtu wi dañoo jurut ci bayitam bu njëkk moo tax bismillah sëriñ góor a faal kaay fii tagaaral ñu say bayit nga bàkkal ñu suñ jàmbaar jëmam jaara ndax ñu xam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 mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax tey baalu xaq baax a baax ci ñëpp rek ñi nga xam ne ñu ngi dégg suñu kàddu rawatina kilifa yi xam naa dañuy ñëw rek mubasharatan ci xasida gi aoudu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim barkeb soxna jaara mbëggeel sar na sab xol ba tax maa gëlëm ma ko yëg ni muy yéege gën maa alam mbëggeel sar na sab xol ba tax maa gëlëm ma ko yëg ni muy yéege gën maa alam ba far sóob ma géejug cofeel péexi mbeex ma gaw xol bi may féey ba génneb dëkkam falaa jekki péexum dandeex upp ma samam xel di xelleeku ngir ay mayam ma faf jekki fay tagg saa soppe bi su lis lëf ci lëm-lëm fësal ñépp xam ci ak raw la buur soobu mboorum ña buur bi jagleel ngëneel ségg leen ciy mbiram ci ak raw la buur soobu mboorum ña buur bi jagleel ngëneel sedd leen ciy mbiram mu dox diir bu néew làq joppi ngërëm ba muy jàng quraan la gétti kemam bu daan jàng day jekki fuglub bindam bu koy jàng as ndiir di mbokkal bindam ba muy am fukk ñeenti at wattu na ci mokkal gu woo koŋ moo feesa jom ci as ndiir la beqee bindub kaamilam fa ay waajuram jàng ab xam-xamam ginnaaw booba maam Anta Ndiaye moo waral mu dem kër sëriñ Moor ba am fay ngërëm ba muy laata dem kër la wax ay ñoñam bu yónneen desoon naa ko am fee ma jëm njagam am yónneen faat na naa am fa ko fu nit tudde yónneen tafal tew turam njagam am yónneen faat na naa am fa ko fu nit tudde yónneen tafal tew turam dogoog dëggu roy yéene moo tax mu am ki semmal nit ak jinne not ay bañam dogoog dëggu roy rëy yéene moo tax mu am ki semmal nit ak jinne not ay bañam ma faf wax tuut ma faf wax la tuut ciy jikkoom ndax nga xam woyof yow tab yiiwe doyloo ngoram wegoog sàmm ak fonk ay dëkkandoom la maam jaara sàlloo di topp sangam ragal yàlla yaakaar ko jox koy mbiram di koy jaamu bam fal ko ful ay jëfam jigéen ñépp roy teef u mat waa ngi nii ndaxañ teef ya moo ngoor ko lépp ak mu lëm rëyug jëf yi ba mu tax nga naan mag la woon ne fanweeri at ak ñette ak dundam rëyug jëf yi ba mu tax nga naan mag la woon ne fanweeri at ay ñette ay dundam ba muy ndaw lëfëx jëf ba dàmmee ndamam lu jiitug demam bët du gis ay kemam ba muy ndaw lëfëx jëf ba dàmmee ndamam lu jiitu demam bët du gis am kemam ne leen waaj bisam bii di ñëw muy la diis ci weer wi nu jëm ñépp nañ yéene dem sëriñ Muntaxa yàlla na buur may ko wér ba yéeneem yépp mat mu am ciy ngërëm sëriñ Muntaxa yàlla na buur may ko wér ba yéeneem yi mat Bàmba jur koy ngërëm ma ubba yu fii dellu santaat boroom jullil suñu yeneen ñaan ci buur yàlla ndam ma ubba yu fii dellu santaat boroom jullil suñu yeneen ñaan ci buur yàlla ndam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aawusu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim waxoon ne ci sàllu tawil war te koy njaabalit bu wér te fas yéeni kër gu mbax rekk feese ko ci sàllu tawil war te koy njaabalit bu wér te fas yéeni kër gu mbax rekk feese ko kërug tab kërug xaskan wa am cër bu rëy ci dii kërug tab bu am jër bu këru kërug xaskan bu am jër bu rëy ci di na jeg bi talu yi ñu gotti ko samaw fas ca kër googee la daa raama kay njaabal kamay tagga tax jaaratullahi moom ma ràññiku ci ndoor teem la faf raw jépp jàmbaar ju xejjiku ci tab njub akuk maandu talu yiw mu njëkke ko ba muy toll ci ndaw ba muy toll ci ndaw la daa lépp mbaax te xam yàlla gépp xam lu dik mooy mu moytu ko musul jànni kenn nit mbaate jëw donte day kemam la muy wax da mooy ixlaasu yàlla ka faale ko raxiibaak nawaafil yaak faraid ya yépp a yam dadi def ko nam jaadoo bila chat mi mushriku te lii lépp lam di tar ak ay metti téewulit dadaa topp sayxum sayxumam mor ma tànn ko falawlaahu lam naxsul ala alaalami alladi takannafahu ashraarum min kulli naashiki salaamun wa ridwanun min alcheyxina alxadim wa fawzan li man yebxi siraajun li saaliki ka doon xarfi ak gaalam ngirugu yitte di tàngal kafek cheikh mor li lay tax mu ràññiku la xëy may ko ngën ji may gu ñuy ko yem la xëy may ji may gu ñuy ko yem da mooy fonk woon du xëy mukk réccu ko da ngay géej te ak géej nag lu koy ñer de amtiwul li lee tax ma gàttañ lu ci mim lef mu talliku ala man lahu sabuqun wa fadlun ala alwara salaam alali wa huwa annabiyu almubaraku maa al ali wa sahbi alkirami wa cheykhina xadiimi almurabbi maa yuadabu mushriku maa al aali wa saxbi alkiraami wa cheikhina alxadiimi almurabbi maa yuadabu mushriku asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax te di am mbégte lool ci teewaay bi ngeen teew ci bis bi tey nag daanaka xasida gi jot gi may mayuñu woon ñu def ko waaye nag da di daa mbokk yu bari yoo xamante ni xasida gi moo leen fi bàyyi ba heure bi looloo tax rek ñu ne nañ ko jàllale rek bismillahi rahmani rahim badatu bi bismil ilahil yéene kañ bàkk mbër mi ñu yéem badatu bi bismil ilahil fa soo yéene kañ bàkk mbër mi ñu yéem salaatan salaaman alal mustafa wa alin wa saxbin ña fa moom ma jug mu sam xel sotaat say xalim taway soxna maam jaara fàgguy ngërëm te soo booti géejug arut ngir ma way karoy Aïcha ak Fatima bun ko miim ne maam jaara lay woy ku mën woy wolof français ak arab kaay ñu woy ay jëfam karaan daan foog guddeem yaag di jaamu boroom di dundal sunaas gën gi xayrul anim ne taaram jommal na niswaan yewoon fa makkaaki taif yiwem gaay salom ka daan fàggu leer yaa ka moytoo di lor mbindeef yépp mooy mbër ma ràngooy ndamam ka daan fàggu yiw yaag saxoo muñ dogal ba far am ci dunyaa ku dul ñaar ci lim ka jaayoon yu neex xam ya jëndey ngërëm ba jaayaati bànneex ci wut buur bi moom turam waa ka siiw lool ne xam nañ turam ko xam yàlla xam Mustapha xam mbiram ka daa wéttaloo diine daa mooy bi te imaan la daa sañse muy mbubbam lislaam jaadi ooram ya doy koy takkaay te daawul dogante ka wax bay sëngéem mu ray gaadi ixsaan du kuy saamandaay te daawul xuloo koy xaxar moo ñu yéem te fonkoon sëriñam ba doy looy dogal te farloom nga moo yéem sëriñam ba doy looy dogal te farloom nga moo yéem ñoñam yàgg goroom ki may woy furxaan ji la daa tegtaloo mësul jëw te daawul merook ay goroom ki may woy turam wee ñu won ay mbiram ne jaara ku dëkkaale buur raw kemam ki may woy muñam gee waral bal li may yu dul jeex fi ci dunyaa te ëllëg la jëm ki may woy ne moo tax ñu mucc ci njaam France gee ba Allemagne ku ne ngi di raam ki may woy ne moo tee ñu ki may woy ne moo tee ñu ju yóog yoneen te kon réew mi seytaane not ñoog pexeem ki may woy de moo tee ba yaakaar tasut yaakaar jee di Cheikh Bamba muy cër bu woom jarul wax ne xam ngeen sëriñ bamba doomi maam jaara suñ maam bi mi mbay tool bu woom te Cheikh Bamba moo tax lislaam fargewul fu suñ mi war nañ ñu njukkal ko moom ne yow bamba ñu bokkaale buur te yaatal sunnaas Mustafa mi karim ne yow yàlla soppil li fi peppi suuf mu di may yu mu di daal ca Cheikhul Xadim ne yow yàlla soppil li fi peppi suuf mu di may yu yol daal ca Cheikhul Xadim li mu ndox yeeg li fi ay karaw na doon leer yu jaar na doon leer li fi ay karaw na leer yu baawaan fa suñ maam jamoom fa xaftu bi xamdil ilaahil muin salaatan salaaman ci xayrul anim waqaftu bi xamdil ilaahil muin salaatan salaaman ci xayrul anim wa wa saxbin wa cheikhil qadim li feek aljanaa dàq duniyaa fa ñoom wa alin wa sahbin wa cheikhul li fekk aljana dàq dunya fa ñoom salaamaaleykum wa damay doore tey say kàddu ci tagg ak ngërëm ci buur yàlla mi tey dellu ñaanaan mu may ma ngëm damay doore ci tagg ci buur yàlla mi tey dellu ñaanaan mu dama dégg ay mbir yooyu ku jot loola dal fëx jawal waaxu ngir loolee fi am jar na dal di xam ci loolee ci laa jug jublu ab dëkk ngir di laaj li may dégg ndoonee ndax lu am lam du mbir mu am ñu jaaxle te naa mii li ngay laaj de li ngay laaj de ñoo ci yam moyowtee nga leeral loolu ngay lakk ngir ñu xam manaan leen dama dégg soxna sos mbir ya doy na waar ca ak mbaax akum ñub fekk nit ñaa nga ñàkk jom ñu wooma ci seenum pénc ngir jox ma ay xibaar ci loolee ci laa ci loolee ci laa dem toog ñu dooree ci ay biram ñu woo kenn ci kàngam ca mag ñooñu ngir mu ñëw mu ñëw doore ay kàddoom yu neex lool ba mel ne lem ci loolee ci lay wax naan dama dégg ak jigéen ci mboolem li ñuy wax nit ci ak mbaax ak njubam ci la jug di def ab gëstu gis muy jigéen ju baax ku dëddu te am lool diine xam yàlla boole ngëm te daa jekku alxuraan ci mokkal ba bind ko te mbooleem la cay buur wax mu jël lépp def jëfam ku daa jaamu yàlla moom te daa topp yónnenam ci mbooleem te daa topp yónne ku daa jaamu ci mbooleem la muy ginnee ba buur yàlla jox ko ndam ku daa roy saxaabaam yaag mbooleem ku nekk ku daa roy saxaabaam yaag mbooleem ku nit dinaw mu jël def la ab roy def tafu képp def sa gam ko am ngor te am fayda te am fii te am lii di fulla it te am jom am muñkat la muñ moo di gëm-gëmam ku daa digle aw yiw moom te daa topp yoon ku daa aw yiw moom te bépp yoon wu yóbbu ci man loolu rek moo di gis-gisam ku rey mbir te am xam-xam te xër lool ci julli it di jàmbaar ju bëggoon daara ngir yokk xam-xamam ku nekkoon la roy moom ci mbooleem jigéen ñi la ci jëf jëpp jum daa jëf lii rekk doy na ndam ku nekkoon ku déggoon ndigal lool sax ci sëñ bi ka yàlla jox ci mbooleem lim daa jëf ngir ak yokk ak jomam ku daa xëy di liggéey moom di bàcceeka xëy di root di jàngale tey matt lii lépp ngir jomam ku baax lool te xam boppam te am lii di jàmm it te nekkoon ko am baatin ku xam lii de doo ko jam ku jàppoon ak ñàmbur te daa noppi daa wax te daa fonk ay waxtoom ndaxam diine moom la gëm ku déggal ab sangam ba bur yàlla xëy ko fay ci laay jànge xissaam booba lii rekk doy na ndam dañoo wax ne daa am bis borom kër ba yàppule ci ëttam ci yooyee néeg mu jub jublu sàkketam mu jug ngir defar loole na xam kat du mbir mu ndaw mu jël weñ di takkaat lu mu fa def loola bañ du dem ci lii nag la wooloo soxna si ngir mu jàpp ci mu far jug ci lii nag la woolee soxna si ngir mu jàpp ji mu fara jug ne waxet daw ba yëg seeki tegginam mu jug wax ko jàppal fii ma dem seeti mbir mu dër te tekkat fi sàkket yi mu jël jàpp ak mbégam mu dem far ndogal ñëw fàtte loolee ci ay minit mu dem delluwaat néegam ba ne suuti julli am mu jug jàppuwaat ngir julli ngir daawu sànq wax tu lii tax ba buur fay leen jàmbaar ju ñépp yéem mu rombaat ko foofee soxna Maryama daa taxaw ci teggin mu waaroo waaru ñaan yàlla mayu ko ndam ne lii rek moo tax ne lii moo tax yàlla buru fay ko ngën gi fay mu raw képp kuy woddoo ko muuroo ko takk lam te di awwal liw bu mat sëkk dal raw ci mbooleem ñi ñuy tudd ak ñi fiy jaamu yàlla ñoom ci lii ci laa dellu naa góor googa ndax kii du ci miim réew ci moom laa gis ku ñépp ciy jëfam manaa wax ma ndaw si ngir ne mo manaa wax ma moom mooma gondi man xanaa day waliyun tax ba lii am ci ak dundam manaa wax ma ndaw si ngir ne mooma gondi man xanaa day waliyun tax ba lii am ci ak dundam mu naa waaw te dundam gee lu ndaw lool te tuuti lu tolloog ci fanweer ak te lii rekk mooy dundam ku baax kooka mooy maam jaara sangub ku doon jigéen de moom laa fi doon junjaat ku am xel de xam ko moom ku dem tey bisam bi xam ne maam jaara am na lam ku nekk ci réew mi dem fa ngir sàkku am mbégam lu waaye wax ci ak mbaaxam lu dun dun tax mu doy taxaw naa di ñaan buur yàlla yokkaat fi ay mayam ne fekk doomam Seex Bàmba moo féete ñépp kaw na yàlla dotti xéewal yokkaat fi ay mbiram ne fekk doomam Seex Bàmba moo féete ñépp kaw na yàlla dotti xéewal yokk lu ne cas xalim gi te way ku yéemu ci bépp jullit te jëlale naa muridu te nekk jigéen ju man góor lii lu wér la te kenn du ko miim ku nekkul ab ibaadu te def na lu góor deful te jigéen jegew ko te muñ lu jigéen muñul tey wax lu jaadu te gëm loo yàlla doy yàlla buur bi di julli di woor dinaa fi la teg ca dëddu fi àdduna jaw du def ko du caa gene xas fi kenn ta juróom fi kenn ta torop jub loolu yiddu sifaatu waxtu juróom te du jéema tayyal ku dig nu ma wax turam man Cheikh Modou turam wa di Soxna Jaara de Bousso Mody fi aw santam ci àdduna yaa ka dëddu te am xam-xam di sax ci di jaamu buur bi liggéeyal yàlla yit ma kenn du xas du la jaw li nga def ci baax dafa doy la sëkk ti di woddu faqiir yi ak miskiin sa kàddu di jug doo mer te doo xultu ñaxtu yitam ma ne doo ko def yay nit ku dëddu dimaami sëriñu baaraak seyxi fàllu wa sey wa seyxi yow ak seyxi abdu ahad ma ne yaa di garmi di nit ku dëggu defal nga ñu it lu rëy ñun ñi muriidu amuñ sak fayda yow mi le na jaara xanaa dañu day xanaa dañu bàyyi la ak yow mi wa duudu ma tëj sa way tañaani ci Cheikhi Bamba ma am xam-xam gu ànd ak wér te gudd fanit dama am ci barkeb soxna jaara te sant fi képp yit ma nekkuy muridu te sant yit ma nekkuy muridu salaamaaleykum dama romb tey ab carjaneer ma ci saa kanam ni ma leeru gox yi jugal te saddije ay bayit ma ni lii xiyaal lam dëgg joj dama seet si tey ma ni naa jugaat taataan ngërëm ba mu feesati sama waat yi tey dafa jug jawal kañu sédde may jàmbar jurey jëfi sémmalal mag la baa ndawit sunu jàmmi tey ak fee ñu jëm ci loxoom la jaar ban doon murit yu ñu teeta ci jàmm yàlla yi kookee ma lay junju ngeen gi góor moo di way juram moo di kañ dippee maryama gétti na góor yu set jaareetun moo di aw turam feesanay xikam suufam sa meññ na ngeen gitaar ba mu ba mu feesati yaa jaara yaa indi làmp di ne ñépp coow muy jaarukaay bépp murit ak sang yit yaa ñu feeñalal jantum ngëneel yaa ñu feeñalal jantum ngëneel ba ñu niitalal leeram ga dugg na gox mu ne ba ñu moñ mucc tey yaa tax ku ni sukkal diraa man toog ci suuf ak jox ko sun hadiyaak mu jar sunu bakkanit lii lépp nag topp ay ndigal ak i mooy tere ca boroom këram ba mu daa safoo nanguloon kayit moo ko may mu am yaatu ngëneel gii nii muy Cheikhuna Ahmad Khadim mi ñu def murit wax nañ ni ma fanweeri at la fi am te wéy delluwaat aras nekk nit ku taaru te sellu wet am at yu néew wëtta tax nga def yàcc far yasar jàppal ci njub danga doon ku taaru te màggi mbóot am na benn bi sangam ba liggéey doo ko woon moo fanaan fa gudd di ba xëy fajar te say wayit sangam laaj kondi luy sa yitte da soxna si mu ni yaamate loo sàqu mi ngir bañ mu rot sëriñ Njamba sant ko ngir jëfam ji mu def ci moom ñaanal ko yàlla la mu meññi ko mukk dootu rot yaay jant bopp leeral nga fépp mu mujj leer xëy soxna yépp di sàkku leer ak barke yi lan def ca Fatima ak Khadija ak Aïcha jikkoog lewet soxna jaara mooy ki ko màng it naa tànq jox gaa yi ñu tànq joxaat kaneen soxna jaara géej la guddoo tunis tabe bépp wér soxna jaara géej la guddoo tunis tabe bépp wér xalil la ma soobu tey na ma bindi way xelleeti xel génney xalaat yi ma yàlla may géeju xalil la ma soobu tey na ma bindi way xelleeti xel génney xalaat yi ma yàlla may am mbégte fop xalima ngëneel gi mel ne or sëppaattidaa sippeeti ko jug bindi way sëppaattidaa ko jiin ko ma doy mi piir jambaari buur janu tee gëlëm faggul nu dég wudi ballal kumar sa guddu yi jambar ja mooy sunu maam ja sox na jaariya jambar ja mooy sunu maam ja sox na jaariya ummul xadim ummul xadim jàmbaari moor jëf-jëf yu rëy yelloo na way cant ak ndax lii mu def mus luñ ko gis dun mos ko gis moo yaatu pay dëggum ga ak gëm-gëmu am mooy lanu yéem sellal jëfam yaatal lefam mooy gën gi ndey ba mu nekk ndaw lañ ko jàngaloon ba mu nekk ndaw ba mu nekk ndaw lañ ko jàngaloon ba mu mokkal xeeti xam-xam ya fi nekkoon taxu ko rëy ba mu nekk ndaw lañ ko jàngaloon xeeti xam-xam ya fi nekkoon ba mu mokkal taxu ko rëy woyaf nib xob wayaf nib xob dëgër nib doj jubal nib goj wayaf nib xob dëgër nib doj wayaf nib xob dëgër nib doj jubal nib goj déggal sëriñam déggal sëriñam déggal sëriñam ne ci waawam maseefu ko moy ne ci ne ci waawam ko may boo leeg wéetal këtiim ña fi kaw boo wéetal këtiim ña fi suuf te moom ña fa kaw boo leeg wéetal këtiim ña fi suuf te moom ña fa kaw dafiy wij jëm ñu doon xaritam rafet nab sëy kuy wut royuwaay wu mat royuwaay jàppal kii nii déglul tey jii ma wax jikkoom te def koy woy yar ak teggin mandoog sutura tey ak am dal ji koy jaaraa jëlal yow mii di wut koo roy daawul yëddu daawul xëccoo ba fay tongoo yaatal dënnam ku naw ña ca faax moo yaa ay may sàmmoon boppam defoon léppam mu doon islaam waajib sunna lu buur digle ca lool lay ngoy sagal islaam sagal islaam sagal islaam gàccal seytaan jagal jamono sagal islaam gàccal seytaan jagal jamono ndax li ma bañ galaan ndënd saa fàqub galan di kañ te wax sa mbaax gii nga làmboo soxna maam jaara mbusoo biyoog mbàkke ñooy maamam ya jant la weer ahmad busoy baay ba maam astaay ndeyam jaara daat yàlla jal jàng alxuraan ja mokk na lool xam-xam da ca géeju ngoor fànnam ya maam jaara ku teel dem kër la sëñ Mor Anta mañ ko joxoon musula yeexe ndigal fa ab ëttam jaara Mariama daa soroon farlu lu sëñ ba joxañ mu def ko gaaw nangu gaa yéem ñépp maam jaara yitteem ja lépp la jox ja sangam du sàkku ngërëm dootuñu gis ku ko dab ci toppe maam jaara yitteem ja lépp la jox sangam di sàkku ngërëm dootuñu gis ku ko dab ci toppe maam jaara day buub këram ga di root ndaa xam ya toggi ñamam bu yàkk donga ya bég ngir xër ga maam jaaraa te jaay na takkaay ya jëndem soow joxub sëriñam xargaal ga xambeek kafeem xellil ko maam jaaraa te jaay na takkaay ya jëndem soow joxub sëriñam xargal ga xambeek kafeem xellil ko maam jaaraa moo téye sàkketu ab sangam di diglu ndigal fanaane ca tawte ngir pëseef ba maam jaaraa pëseef a tax musla la yokkat mus la du mer du foñ sangam du ko daw du gànt maam jaaraa baatam ba daa suufe buy reexit du kekku ca kaw am jàmm fu mu jàmm sante muuñ na maam jaaraa day weddi jaamu boroomam ak di tuub di sikkar ismul ilaahi durus furqaan ja maam jaaraa yéeneem ja yéeneem ja maryaama fay gaay daam ka xam ya wagar seex bamba mbër du ko dab du xencu fam jaara amtil ca réewi arab kay jot ko yit du ajam moo raw ña xejji fa buur moo donn muxtaara moo gën ku weex gën ku ñuul am njool du yóotu ndabam ba yër la nekk fa biir ump na leen kaara fam tollu gët ko seeru làmmiñit du ko wax dayoom ba xel du ko daj yëg-yëg bu doy waaraa soxna jaara kañul ndamul baali yaa jam njong la ñépp di diir jigéen du jur ku ni mel bàyyi lamin baaraa ku xool ci seex ibra faal mbaa ibra faati sukkal sa doom a gën ñépp gën ndey kun ne jàmbaaraa na yàlla fay seex basiiroog doom ya ñépp dundal dëkkam ba am na jumaa marché kërub jaara na yàlla fay seex basiiroog doom ya ñépp a dundal dëkkam ba am na juma marché kërub jaara am daara at mu ne ab lim mokkale fa tari ci turandoom nañ gërëm Cheikh safaa Diarra Cheikh Mountakha mii fi toog te yàlla na yeggale naal fa Poroxaan ak fa Touba moo siggil Diarra. seytaani rajiim bismillaahi maam soxna Hawa ma jiite yoon waa Sudéni mooy waaja mu ma jiite yoon waa Sudéni mooy waaja mu fi njëkk Mariama Imran may maami nasraan Sudéni moo daan yiwam du dakk su Asiya dee jigéen ju man dee ci géeju mbaax dee til muy ku cëkk Xadija neem day ki njëkk a gëm kay ci aw jigéen may na sang njëkk xalima mee nàmpaloon ci meewam muhammadan am na jagle yokku aisa asat fihim wa faaqat sudee moo sudeene moo mat te mbaax du fàkk fatima zahra ma laqi xayra sudee ko am raaja yiw te sëkk war ci ay gaal te dem fa seen xaal jigéen fay taal taalum njënjëkk dem fa burxaan gis mbooti xuraan ka raw naan foofee la dëkk foofee la jaara may maami baara sampooni daara te fa nekk foofe la maryam ma yéemi kàngam defeeb liggéeyam fa laa ko fekk jébbal ko saa xol jébbal ko saa xel mu way ko jàngal ko way wu jekk ne ma saw xii man seexu naa mi naa wax lu neex yi ñel kii ma jàkk jigéen ju man góor ci diine ak boor bu doon ko waaw góor fa moom la sukk mbusoobe baale ki ñépp faale ngirum rijaal yi moom moo ko fàkk mënoon na xuraan rafet ne marjaan diis gann miisaan aw yiw la sàkk amoon na xam-xam bu yaatu jëmmam jëmbir la muñ lam kiimaan la rekk daan jaamu yàlla ci lay la tax jaaratullah mu daat ko nekk toggoona ab xiif daa baf ngu kaw suuf maryaama kiif kiif la def ne tekk toggoon a aw mar te njëkk dem kër la dëkke kër kër fa kaw la dàkk yàlla ko sédde mu tem mu guddi sujjóot du beddi ku yàlla bàkk lakinaha fam rawee ci néegam suñ mor di sangam la jàpp nikk amaana taw ba amaana lay baa moo tax ba buur ba fàkkal ko pàkk amaana gaal gaa mu xar ca kër ga ngir teg kafeem gaa moo tax mu njëkk muuru na noppam teewoon na tànkam mënoon na waañam te mësta lakk du jëf du naw jëf te tuutiwul jëf mam jaara mii lef fa lañ ko fekk du tontu ay wax te moom su dee wax lu baax da lay wax mu mat ko sëkk rëyul iñaanul ku gaaw la yéexul day teel a jug njël këram mu fàkk da gàtt làmmiñ da làmmiñ boppam la daa xañ di jox ku koy bañ te moom mu ñàkk te du ngistal du xab xabal farloo ki jëf jël ci lii la nekk moo tax sama am la yàlla buuram wone fa jantam mu dal di tàkk tas fépp duniyaa buur jox ko nos yaa mu boole may yaa ku moy ko ñàkk kookaa di bamba ma téeñu yan ba moo doon yonen baa moo ñàkk sikk moo jiitu aw góor moo taaru am boor moo nodde am noor yonen la rekk moo tax ba péexte jug daañu seeti moo tax ñu wuute moo tax moo tax ñu làkk moo tax ba péexte jox daan ñu seet si moo tax ñu wuute ay moo ñu làkk moo tax ba jonn buur yàlla may ñu moo tax ñu weg ñu moo tax ñu jekk moo jiitu xaare te daana waare yonen la jaare moo tax mu njëkk sa jëf ju baax maam moo tax nga am daam te am borom saam ñu téye ko nikk na yàlla dolli sa leer gu jolli tafay la baali xéewal yu sëkk nangul ma way wi te yokku fan wi wéral yaram wi man mii la bàkk ci barke wii way bur may ma ay may te baal ma ay moy te daa ma yokk ci barke wii way bur may ma ay may te baal ma ay moy te daan ma yokku asalaamaaleykum wa rahmatulah. waa daaray sëriñ Abdoul Ahad Bousso ci taalif yu am solo yooyu ngeen jagleel soxna si ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax di leen yóbbante ak cant ci sëriñ Abdoul Ahad Bousso di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te wéral ay cëram. ñu ngi sant bu baax mbooleem mbokk yi nga xam ne moom ñoom la àndaloon bis bi yépp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu benn daayira bàyyiwuñu benn kuréel ci ñi ñu àndaloon bis bi ñu ngi sant bu baax a baax a baax mbooleem koo xam ne jàpp na ci te duñu mën a lim ñëpp waaye ñu ngi sant bu baax sëñ Ablaye Fall ak njabootam yépp gis nañ taxawaay bi boobu ba léegi ñu ngi ñëw ànd ak ñun bis bi ak sëriñ Abdoulaye Diouf ak mbooleem njaboot gi rek bëgguñoo tudd waaye du du ñàkk ñu ñu tudd ay benn ti nit rek ngir sant ñëpp waaye nag di mujjeel ak cant ci ñoo xam ne ñoo waral lépp du mujjeelug yeexeel waaye mujjeelug ngëneel la muy waa kuréel takku liggéeyal soxna jaara di jël cant kooku di ko teg ci loxal coordinateur bi di njiit li di Cheikh Mahamadul Mourtada ak sëriñ Saliou Diop mi ak mbooleem ñi ñu àndal liggéey bi yépp di leen sant ci li weesu di leen sant ci fi ñu toll di leen sant ca lañu jëm ngir xam seeni pas-pas ak seeni yéene ak seeni engagement dañu ñu benn yoon di yeesal seen pas-pas dañu ñu benn yoon di jël seeni àddiya seenu ñaq di ko def ci liggéey bi ngir mu jëm kanam kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax di leen ñaanal suñu borom yàggal leen wéral leen sàmm leen yokk seeni i xéewal ba fi ñu bëgg a àgg ci liggéeyu sëriñ Touba Seexul Xaddim bii ñu àgg fa fu kawe seen jot ñu ngi sant bu baax sëñ Mamadou Mourtada ci sa taxawaay ci ni ngay coordonné liggéey bi waxtu wu nekk sa poos fekkewu ko sa jot fekkewu ko sa am am sa alal dara fekkewu ko waxtu wu ne guddeeg bëccëg yaa ngi ciy dox di xool nu ñuy gën a nose mbooloo mi ba gën a mën a ànd liggéeyal sëriñ bi di ci indi ay xalaat yoo xam ne macha allahu taala noonu la ñuy sant Serigne Saliou Diop mi nga xam ne moom nga feggool ci liggéey bi ak soxna yi nga xam ne ñoom nga àndal ci liggéey bi yépp ñu ngi sant soxna yi di leen gërëm li ñu ngi sant soxna yi di leen gërëm ma baamu ko ndax seen taxawaay ak seen pësteef ak seenug dogu ci liggéey bi ñu ngi sant dongay tarbiye yi ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn di sant Serigne Abdoulahad Gueye ak waa màggal fàllu yépp ci jiitul sëriñ Ibrahima Fall di sant sëriñ Ibrahima Kase mi nga xam ne moo féete woon ci taaral bis bi ci baas bi ak mbooleem li ci aju di sant ñi nekkoon ci waañ wi nga xam ne ci suba ba léegi noppaluwuñ benn yoon ngir lépp mën a yeween mën a jaar aw yoon kon ñi ngi leen di sant góor ak jigéen mag ak ndaw te bu ñu tuddee sëñ Xalil Yàdd ak sëriñ Abdoulahat Fay ak soxna yi ñu àndal soxna Faat Faye ak ñooñu ñu yóbbaale ñi ci des ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm xam naa lépp loo xam ne jotut ci kàddu yi rek ngeen xam ne ci man la bu ko defee mbokk yi ci sama wet bu fekkee am nañ kàddu guñ ci àggale ñu ah kon ñoom nee nañ doyloo nañ samay kàddu ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf